bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ya rabbi israh fi dawami sadri sarhan bihi akunu misla badri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafahu xawli mbokki téléspectateur u Touba TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen noo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa <coughs> suñu borom yàggal ko fi loolu ci mu wér di nuyu mbooleem kilifay diine yi ci réew mi kenn ku ci nekk noo ngi lay fekk ca penc ma nga nekk di la jox wàccuwaay bu rëy bi nga amee di am mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen plateau spécial yi nga xam ne Touba TV dañ leen koy faral di amalal euh, waxtu bu nekk ci ay xew-xew euh, yoo xam ne dana dëppoo ak euh, lislaam tey ji nag sunu plateau bi nekk plateau boo xam ne nii plateau umma islaam bépp la engagé ngir ñaari pàcc yi nga xam ne war nañu ci dugg war ci fas ci yéene waxtaane waxtaan woo xam ne nii eh, dana jariñ murit bi dana jariñ jullit bi dana jariñ taalibe bi dana jariñ sax sénégalais bi nga xam ne <clears throat> dafa nekk ci réew mi te ñu boro bokk li nga xam ne nii mooy moo jiitu li ñu koy waxe balaa eh, diin di ñëw eh, yëpp jikko yu baax yu rafet yi nga xam ne nii nit ki war na koo amee ñuy ziyaare bu baax a baax nag gan yu sell yu màgg yi mu am ci plateau bi waaye nag plateau bi xam ngeen ne tey ñu ngi ko feggoo ak euh, Serigne Jibril Ndaw euh, mi nga xam ne mooy directeur de programme Touba TV ñu di ko ziyaare baax a baax di ko baalu ak di ko déwénati ci euh, kori gi di ko félicité yi ci taxawaay yu am solo yi rawatina programme bii mu jël tey fas yéene waxtaane ko ngir lépp rek war a jur njariñ Touba TV nag bu jëlee benn point fas yéene waxtaan tem engagé l'islam dafay day dañuy wax ne sànni nga lëg ca lay ndax day mel ni loolu moo war a nekk seen ligne mooy lépp loo xam ne concerné na lislaam loolu ci la ñu war di euh, dox donte ci la ñu nekk saa su nekk di ko fàttali euh, taalibe yi ak téléspectateurs yi ñu koy jariñoo ñuy ziare sunu kilifa euh, di sunu xarit di jàmbaar lool ci liggéey bi muy sëriñ Ahmed Saloum Dieng Nathiouddine démb ci guddi yaakaar naa la jokkook yow jokkook man ci xew-xew bi am te lëmbe àddina si ñu war cee wax ndax wahdatul muslimin ñu koy wax euh, yaakaar naa ne ci jamono yu jullit bi nekkee ci jafe-jafe dañ ko war a assister jamono bu nekkee itam ci noflaay war nañ koo encourager loolu moo waral mu jël téléphone am ginnaaw bi mu solee dàllam di wax ci tolluwaay yi am fële ci réew mi di muy réew moo xam ne nii réew la moo xam ne dañuy wax ne jullit bu nekk am nga fa ab bànqaas boo xam ne nii foofee la jóge ndax alayhi salaatu wasalaam ak histoire yi nga xamee ni ñëw na ci lislaam te bàyyi ko foofee ca dëkk bu sell boobu euh, mu di ci dox nag ginnaaw bi mu ci amee ndigalul Cheikh mun Mountakha di ci dox ci ay kilifa di dem ci ambassadeur bi di waxtaan ak ñoom lépp rek ngir bokk naqarlu ak mettitlu li nga xam ne nii mooy métti di ñuy teg jullit yi nga xam ne ña nga foofee ca réew ma loolu moo waral gis ngeen sax Cheikh Amadou Mountakha def na ci discours bu am solo di ko métti lu ñëpp métti ko eh, na ko xadis ba waxee boo gisee loo xam ne nii eh, métti na la eh, ci pàcc yi nga koy naqarloo di ko nuyu bu baax sëñ Ahmed saalum di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex may ko moom tamit mu yeggale ñu am ci plateau bi oustaz al imam saar moom it ku ne xam na ni ma nga fële ca télévision DTV waaye muy euh, jëmm joo xam ne moom it lislaam ñor gu ma ko ñor tax na euh, waxuma sax laal jëmmi bànqaas bi wala garab gi waaye ku ci bokk sax di ko yëngu bu ñu ko laalee moom mooy njëkk a jóg taxaw euh, défendre ko ngir li ñuy waxee ci wax waxtasimu bi hablillahi jamian waaye nag wala tafarraxu loolu moo tax tey mu ñëw moom tamit ci beneen pàcc donte deuxième partie bi ci loolu lañ koy jëmale waaye nag ñu feggoog imaam Alxasan Seck mi nga xam ne ni Euh, ñëpp xam nañu xam-xamam rafetlu ko loolu itam muy koo xam ne itam waxtu ko bokk yi gisee ci euh, kanamu écran danañu xam ne dafay défendre waaye dafay dégager mooy yoon yi nga xam ne ni ci lañu war a jaar ngir nekk ay révolutionnaire mais nag pas révolutionnaire yoo xam ci ay arme la ñuy dox waaye révolutionnaire yoo xam dañ koy dox ba pare teg ko ci éthique ak déontologie ak yoon turux bi nga xam ne ni fala alayhi salaatu wasalaam jaarale mboolem euh, kuy topp sunnaam kon tey sunu débat bi première partie bi sëñ Jibril dañ koy def ci tolluwaay Palestine muy réew moo xam ne yaa ngi koy wax sànq ana ban taxawaay la ci jullit yëpp war a am ñu di ci félicité président Erdogan muy président de la république bu Turquie nekk koo xam ne ni taxawaayam dem na ba nekk léegi jullit yëpp sax ñooy mujj di ko félicité ci taxawaayam bu am solo bi nga xam ne nga koy am te loolu di lu am solo Euh, waaye buñ jógee ci loolu ana lan lañ war a lan lañ war a dox jëm ci ñun Sénégal war nañu organiser benn marche ajuma ak jàmm ngir mattitlu ak naqarlu ni ma ko waxee léegi ci xaddis bi bokk na ci ponk yooyu loo xam ne ni naqari na la te mënoo ko faj amoo doole ji loolu jàpp naa ne bokk na ci yi ñu war a waxtaane waaye yee ci it sénégalais yi ndax dañuy dégg Palestine Israël muy muy muy histoire boo xam ne ni boo jàngul alxuraan sax mënoo ko comprendre réellement parce que il faut nga xam taarix door a mën a xam histoire bi na mu demee waaye nag fu jamono ñëwee dafay adopté dafay ànd ak li nga xam ne ni mooy mooy doxalinu àddina ci ñëw di leen gën di neewal doole loolu jàpp naa ne mooy pàcc bi ñu war a njëkk a waxtaanee danañ ci jot ci téléphone bi euh, son excellence ambassadeur bi nga xam ne moom it euh, sëñ Ahmed def na ci ay yitte sax ngir mu ñëw waaye ku ne xam ne jamono ji seen moment la euh, ci recevoir ay gan ak it di recevoir ay soutien yoo xam jóge na ci kilifa diine ci réew yi gis nga xalifa eh, médina bàyyi lew na gis nga moom it déclaration bu am solo bi mu ko ci def sëñ Babacar si Mansour moom it naa nu kadalika nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di joxe li nga xam ne ni mooy eh, seen soutien kon su ko defee deuxième partie bi dañ koy jëm ci eh, loo xam moom la ñu tuddee ànd sàmm jikko yi sëñ Jibril balaa nit nekk jullit wala ngay nekk murit wala tijaan dafa am jikko yoo xam ne ni ma koy wax faral di wax ne sëñ Touba ceddo yi bi mu fekkee qualité yi ñu am dafa adopté seen jikko yooyu l'islam rek la ñu amul mu jox leen nag l'islam waaye jikko yi ñu amoon te muy qualité yu baax sax da koo jël muy ngor muy dëggu muy ñeme kàddu kon jikko yooyu la ànd di sàmm mais jikko yooyu nag ajuwul rek ci ki nga xam ne ni dafa dañoo bokk xibla wala dañoo bokk di dund l'islam rek waaye nag dafa war mboolem ku nekk ci réew mi nga ànd ñu bokk sàmm loolu yëpp ndax ñi koy diriger nekk ci seen i ginnaaw itam seen doole bari na doo bari goo xam ne ni ñun ñëpp mën a àndandoo rek faste suñuy xaaj ci ngir fas yéene défendre ba du law ci suñu réew ma bàyyi la sëñ Jibril nga nuyoo ginnaaw boo nuyoo di nga ñu dikkal dëgg-dëgg ci première pàcc bi nga xam ne moo waral sëñ na mi ngi jógee Banjul démb bi may woo mi ngi ci yoon wi egseegul waaye daf maa wax ne ma lu ñuy xeexal lislaam jaral na ma ma dem ba Mauritanie ngir fa ngir xeexale ko kon nag euh, lu am solo la ci ñu bàyyi la sëñ Jigli ginnaaw boo nuyoo gën ñu présenté waat li nga xam mooy jataay bi su ko defee ñu mën a euh, daw gaaw dugg ci euh, li nga xam ne mooy jataay bi jërëjëf sëñ am aouzu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani irahim wasalatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barki borom tuuba laqin lisaani waxlulan min huluhu qad wajahalhu zakiran wa shakiran abad sëñ ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar mbokk yu tedd yi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal jataay bi mm-hmm. te ni nga ko waxee kenn ku nekk rek bu fi teewoon mu doy sëkk ci taxawee taxawaay bi nga xamante ni mooy lii nga xamante ni moom moo ñu tax jóg mm-hmm. xam naa du ma guddal ci introduction bu matale bi nga xamante ni noonu nga ko defee ak ni nga posé mm-hmm. euh, débat bi waaye ma jàpp ni rek euh, ndokk yàlla ba ñu boolee ñaari jataay yi ndax Euh, jikko yi ñii ñëw ngir jóg taxaw ngir sàmm ko bu ñu ko sàmmut danañu dem ba suñu réew mi nii Palestine mel ci réew mu mu moomaloon boppam dem ba xat fa danañ dem ba suñu réew mi danañ fi xat lool mm-hmm. ay jàmbur danañ jóge ci àll bi ñu ngemb leen dooleel leen ñu ñëw duñu bundu xataal di bundu xataal suñu kilifa diine ba dootuñu ci xaj mm-hmm. te loolee rek mooy li nga xamante ni moom moo xew fële ca Palestine mm-hmm. li ci war nag te war ci ab jullit war ci ab taxawaay mooy àdduna sépp ñu mën a taxaw crise yu bëri daf cee feeñ mhm. maanaam injustice feeñ na ci du dooleel mhm. ak seetaan gu yàgg yi tamit feeñ na ci mhm. ñàkkam nangoo jël cëri euh, jël position it feeñ na ci ndax bu ñu demee ba toll fi mu toll ak ni àdduna bi stratégique waaye jàpp naa ne intérêt boo xamante ni nit mu ngi koy sédd wala di ko di ko di ko di ko di ko di ko bàyyi xel war na caa jiital suñu borom war na caa jiital barab bu tedd boobu war na caa jiital xew-xew jëf ca ne woon ba yeneen yiy dox suñu ginnaaw moo xam yenu siqal réewum Israël la ak lu mu mën a doon ñu war a xam ne nag doole juñ am kattan juñ am suñu borom mii tey ji rañaane woon Seydina Muhammad jaarale ko fii te kenn fekk ko ci moo leen ëpp doole jooju te tey ji bu la neexoon mu rekki ko kon nag ay war nañoo jaare ci jataay yi tamit ñu doon ay dëggi dëggi jullit gëm suñu borom te bañ koo booleeg dara borom di bàyyi xel euh, euh, Soudan wala meneen réew mu mën a doon kon loolu war nañoo xam ne kon ne gëm nga nag des na loolu yi nag dafa mel ni ki problème la bu am am am solo ci biir réewu jullit yi ci problème bu seetaan ci mandu ci loo war te ba tey ji mu jur ay ay yoo xamante ni tey ji léeg-léeg sax mën naa ne day àgg foo xamante ni point de non retour na ndax fi mu doon ne dem na ba ëpp loxo ba yaakaar naa ne xëy na sax <laughs> dëgg dëgg lu dul engagement yu mel xeeti liban yu mel noonu daanaka man jàpp naa ne ñoom ñoo ci mën a def ndax suñu réew yi sax ñun fañ ca toll dëgg-dëgg rek mooy euh, ñu gis lu ñu mënul dara ñu di ko naqarlu suñu xol ak waaye amaana sax dindi gi ci loxoog wala yu mel noonu sax yaakaar naa ne ñun ñii moom néew nañ ci doole waaye nag xanaa ñu def li suñu borom sant muy jullit yi mooy ñu dajaloo di ñaan ndax réew mi tamit lu mën a doon donte ko amuñu mën force militaire wala dara waaye nag wax dëgg yàlla am nañuy ñaan am nañuy kilifa yoo xamante ni tamit buñ ci gis nañu fi ñu mag ñoo xamante ñu mel noonu la ay xubme yi nekk ñu mel noonu mhm. tey ji ba gaa yi jógee jëm si seen kawit jëfandikoo nañu ak ñoom ci noo xamante ni tax nañu bàyyi leen xel mhm. loole nag ba tey mi ngi fi mhm. kon foofu rek la ñuy la ñuy soññ nit ñi di dalal euh, suñu gan yi te comme ñoom la ñu dalal nag ñu bàyyee bàyyee leen kàddu gi euh, jéem a jokkoo yi tamit euh, Safwat Ibrahim mi nga xamante ni moom mooy ambassadeur u Palestine di koo xamante ni wax dëgg yàlla yi tamit ku ku ku ubbeeku la ku yaatal la ku dund li ma gën a metti sëñ bi si histoire Palestine mooy daanaka dañoo juddu fekk ko fi. Mhm. ñu di ko coow ñu di xam ne télé bi dañ si daan nekk di seetaan Yasser Arafat suba ngoon ba nii nga xamante ni noonu la noon noonu noonu la faatoo rek. Mhm. loolu yi tamit continuer di continuer rek. Mhm. te kenn mënu cee am benn solution daal loolu daal moom jaaxal na ma te xam naa ne mbokk yi xëy na dinañ ma ci indil tuuti tuuti ak ak. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Jibril ci euh, introduction ba am solo la sëñ Ahmed damay boole nuyoo bi ak euh, laaj bi ginnaaw bu ñu la nuyoo loo waaye da nga xam ne télévision bi sa télévision la moo tax ndax sa diggante ki nga xam ne mooy ji mbàkk yu fay ñu di ko ziyaare baax di ko ñaanal moom it ndax ku ci am yéene la it eh, gis nga bërki démb bi mu invité ambassadeur yi ci sa liggéey bu am solo bi nga xam def ngeen ko eh, bi mu ñëwee wane na cofeelam ak mbëgteem ci ambassadeur bi nga xam ne ni waxuma sax l'islam bi meen non seulement dafa am ay ay ay alaaka yoo xam digganteem ak yoonu murit gis nga eh, démb rek ñu ci waxtaan nga dem ko leeral kër gu am solo gi nga xam ne jox na ko yoonu murit foofee ca Palestine mu nekk lu am solo waaye tey bu ñëwee tey ci cëslaay ji ci banqaas bi sëñ Ahmed euh, lan moo waral lan moo waral ni ko sañ Jibril waxee seetaan mi seetaan mi mooy euh, tey euh, mbir mu am sa kër sax boo seetaanee mën na dem ba egsi ci yow. Mhm. te fekk foogoo ko woon wala dangaa jugul woon ca teel mais ni ko sëñ Jibril waxe dafa yàgg. mais yàgg bi est-ce que tey. pays yi nga xam ne ni tey ŋànk na islam wala boo fa demee bu dul 100 pour cent it 95 comme ni ñu koy waxee ci Sénégal ban taxawaay ban wàccuwaay la lañu war a am ci histoire bi ngir bu jeexul itam mu wàññeeku ba ñu fay dund mën a am jàmm joo xam danañ mën a dund seen diine comme ni mu leen waree. bismillahi rahmaani rahim. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maa ngi nuyu mbokk ci réew mi ay ci biti réew. di seetaan télé bu mag bi di suñu télé. di Touba TV. teel a teel a jullit yëpp. waaye rawatina teel a sufiyanke yi. waaye teel a waa Kër Sëñ Tuubaa di jiital ci nuyu bi El Hadj yi Faye bi nga xam ni uh, moo initié lii. wax naa ko ba tey ni plateau bi yu mel nii boo ko bëggoon tey ci yenn télé léeg-léeg boo jaarul ci ay neexal ak ay doxin. doo ci àgg. waaye fii moom plateau taw yi la mooy plateau éducation ak orientation. mooy mooy mooy Touba bi imam Assane Seck bi bi ko suñu am di invité sax amul numéro dañu wax ne bu fekkee koo fi mel ne mën naa ñëw am na plateau yoo xam ne bala nga caa dugg moom da nga def lii def laa <laughs> waaw nag fii moom suñu di di di sant yàlla mi ñuy boole jotaay bi mm-hmm. waaye di sant yàlla mi ñu amal lu mel nii mm-hmm. muy foo xam ne mën nga faa taxaw àddu mm-hmm. te ñu xam ni eh, àddu bi nga jub lépp eh, yiw la ndax suñu borom mooy ni mu am tuma suuraa baynahum Euh, jullit yi war nañu waxtaanee seen i mbir. Mhm. te bu amul fa waxtaanee danga nga tumuranke mhm. kon nag sant yàlla mi ñu may ñu am fu ñu waxtaanee. Mhm. waaye di sant euh, kilifa bërëb bi. di El Hadj fay Faye di xarit. di soppi di wërëre comme ni nga ko waxee léegi. démb yàlla xam ne ba nekkee ci frontière Gambie bi. gis benn waaye yor benn piisu promom bi di ko jaayee. dama ko filmé yónnee ko ni ko man de sant naa yàlla ndax ñu naa ba ci frontière Gambie ak Sénégal waa ji yorul benn pièce waaye pièce première rek yónni ko <laughs> mu ngi si ci lool. wala ko nag euh, te fi leneen loo xam ne bëgg naa la ko gaaral loo xam ne amagul Sénégal waaye loolu du waxee fii ndax lii noonu publicité. mu mel ni soppeel xarit la comme ni nga ko waxee. barki dem euh, bi mu wootee. Mhm. ci dëgg Cheikh Mouhamadou Mountakha ci koor gi. Mhm. mooy samedi bi mu mujj koor gi mhm. euh, mu am xalaat bu rafet ndax alaaji Mbàkke moom wax naa ko ni yow dañ naa waajal mhm. waaw nit mhm. ku ñu waajal nag moom mhm. moom moteur moom moteur ci oto rek ngay am maanaam dañ koy liggéeyloo waaw euh, kon moom bi mu xalaatee ni dafa war a invité ambassadeurs yi ak institution yi nekk Ndakaaru ak ONG yi ak kilifa diine yi ngir ñu def benn iftaar jamaa yi mooy ndogandoo te ñëpp xam ne li yoon bi digg diggal diggee ci loolu te mu jaar ko ci mbaaxu suñu borom bi sëñ Muntaxa dana ko loolu de liggéey li gën a rëy ci liggéey bi loolu ci la bokk mhm. ni ko sax sëñ Basiiru bis boobu rek laa ko jox ndigal mu wuutu mu wute njàng mi ñu def Tuubaa mhm. mooy njàngu xasida yi mhm. mooy dama ko naan na fi mbàyyi njàng mi te dem wéttal la ci loolu dara la ma ama sëdd te sëñ Bas ku ko gis koor gi yëpp bés bu nekk tàkkusaan ba waajal timis bés bu ne moo sëñ Muntaxa ñoo dend ci njàngum xasida waaye keroog Tuubaa la jógee ñoo fekk loolu waaye ambassadeur yi fa ñëw li ñuy bëri bëri bëri ba kàddu gi jotee Alaaji Mbàkkiyu da cee wax ak ñoom war a waxal mm-hmm. waaye dañu ko kàddu ambassadeur jox ko ambassadeur Palestine mm-hmm. kon nag loolu foofu mm-hmm. xaalis amu fa place corruption amu fa place pas-pas ak orientation ak yooyu moo fa am place moo tax ba mu waxee ñëpp soulagé wu ñëpp bëgg ñëpp kontaan kon nag jaajëfal ko baax moom Alaaji Mbàkkiyu jaajëfal euh, euh, directeur télévision bi di sëñ Cheikh Balla Sàmm waaw jaajëfal directeur programme di sama mm-hmm. xarit El Hadj Djibril maa ngi fàttaliku

bi Cheikh Mouhamadul Bachir def mu tane nañ ci ñaari yoon ba ñett mu dem couvrir ko lépp couverture yu rafet rafet rafet waaye di sant nag ci mbokk bi nga ñu boole tey ci plateau bi Moussa Moussa Sarr di nit ku jàmbaare tey lañ Moussa am jotaay nii mais mhm. dama koy siibar yàgg na mhm. ci plateau DTV muy nit ku am franc parler waaw te aussi franc parler dafa baax ndax lislaam moom laa xayaa fi diin mhm. lislaam amul amul amul kersa lislaam am mooy jàngale moom boo suivre émission am. Mhm. da xam ne kii koy jàngale la. Mhm. Mhm. waaw day wane ne am na kilifa. waaye li dama lii dama lii dama sant. ngir mu waxee nii. di nuyu nag sama soppe sama xarit nga xam ni. Euh, ñetti fan rek avant lii xew ci àddina bi xew ba lëmbi àddina muy lii xew ci Palestine man ak moom ak docteur Moussa Fall euh, di diplomate nekkoon ci ambassade Sénégal ci Libye ak ci Iran ak euh, Oustaz Moussa Kanté ak association ma ñaar fukki nekk daje nañ Thiès doon fa célébrer journée mondiale al Quds defe naa su ma juumul àjjuma lañ ko def altine yu bon yi tàmbalee xew doonte mi ngi doon xew saa su nekk nag depuis soixante-dix ans yàlla wax ci alxuraan lan tata lan tata an kal a wala nasara waaye ñun maanaam ñeent fan lu jiitu xew yi xam ne moo moo moo yëngal àdduna bi ñun ca Thiès ñu ngi doon waxtaane al Quds di waxtaane taxawaayu jullit yi Euh, ma jëloon ko def ko ñetti thème mm-hmm. benn bi moom waxtaane ko benn bi oustaz Moussa Kande waxtaane ko benn bi oustaz Moussa Fall waxtaane ko mm-hmm. ambassadeur Palestine ñëw tënk waxtaan bi loolu su ma mm-hmm. jëmul àjjuma la altine nag ci lay tàmbalee tàmbalee xew di muy muy borom xam-xam di ko rafet xam-xam dëgg la waaye di ko am xarañ ci ñaari làkk yëpp muy français ak arabe fu ne bëri na téere yoo ngeen di gis tey ñu koy jox gani Tuubaa moom yi moo ko traduire waa Rawdu Rayaahiin téere yoo xam ni non seulement da koy taarib bi ixlaas mhm. mais da koy taarib bi asaar mu xaf fana xam ni daanaka Mhm. daanaka daana sëñ bi fexeel ma fexeel ma ju téere ma joxee seen xol doon seet dëgg la waaw di borom xam ne lu ko baax a baax a baax yàlla lëkkale ñu nag ci wàllu liggéey daaw islamia mhm. lëkkale ñu ci bëree bëri depuis daanaka depuis quinze ans wala vingt ans mhm. waaw du xewle dara ci lislaam te moom newul ci biir te bu ñëwee ñëpp xam ne lislaam lislaam moo moo moo xewle di nuyu nag sama mbokk techniciens yi ñoom Pape Cheikh ak ñoom Mansour di ay rak di ay soppe di di njaboot waaw su ma xasee xewee ñoom dañu ñaawoon sax duñu tàggu Cheikh Balla yow daal waxal bëre nga bëgg ñëw rek <laughs> ndax xam nga xam ne fii sama bëre ñu waxtaan tey mbir bu am solo nag mooy mbirum Palestine mm-hmm. waaye di xadiya insaaniya mais di xadiya di xadiya alamiya mm-hmm. yàlla xam na ni forum bi ma doon def ci mois de mars defe naa mm-hmm. euh, mars bi passé waaw mars le vingt le vingt sept ak le vingt huit mars daa ko boobu ambassadeur Palestine teewoo fa télévision yi ba teewuñu fa mais bokkoon ci ci yu yi def nga xam ne lu ñu gëm la mooy taw tawsee boo xam ne mooy ni jullit yëpp di yëkkati seen at kaddu di ko addu ci ngir Palestine moom boppam ndax noonu lislaam yi nga xam ne mooy la ambassadeur bi dugg seen sax ah. jël ko seen jël ko ñu bàyyi Saad Safir mm-hmm. tafadal yaa Saad Safir salaamaaleykum waaleykum salaam Sayyid ana asma'ukum bi sawt xaafid mm-hmm. taxiyaati liljamii alhamdulilah bismillah antal aan ala alxatu mubasharatan qanaat Touba TV wa maaka al akh Jibril Ndaw mudirul baramiij fil izaa wal imam Hassan Seck en français comme ça euh, euh, en français bien oui je c'est mieux <laughs> ñi seetaan mën ko mën ko gën a wal oustaz Mokhtar Sarr euh, musif ala al baramiij diniya fi qanaat ITV DTV bi luxatil fransiya dafa la bi luxatil fransiya ahsan mm-hmm. bismillah d'abord je viens à saluer les invités ici présents mm-hmm. à commencer par notre grand frère Cheikh Ahmed Saloudiane. Et le frère Mokhtar, le frère Jibril. Mm-hmm. Euh, vous trois, donc vous êtes en train d'animer un débat sur la question palestinienne. Mm-hmm. Euh, les derniers événements qui sont très révélateurs mm de, gra de, de, de grande euh, gravité et d'une grande conséquence néfaste Euh, je suis euh, de tout cœur euh, reconnaissant à vous tous et mm. surtout à travers vous, les spectateurs, les, les de tous bords, de tout horizon, mm. de quatre coins du Sénégal, mm. tous ceux qui, nous ont exprimé leur solidarité, leur soutien et leur compassion. Mmh. Nous avons été submergés ces derniers, jours par les, innombrables messages par les audios, les vidéos, les communiqués et déclarations qui nous a été euh, parvenus, mm -hmm. Euh, euh, euh, les délégations qui se sont succédées à nos présidents. Mm une mobilisation massive mhm. d'une seule voix, d'un seul peuple. Tous, les Sénégalais étaient vraiment sensibles à la question palestinienne exprimer d'une façon ferme leur engagement et leur soutien Euh, euh, au peuple palestinien à sa lutte légitime, à son combat contre l'injustice, pour repousser les occupants, les agresseurs, mm -hmm. et également pour les revendications euh, justes et la cause juste du peuple palestinien, et c'est depuis 73 ans maintenant. Mm -hmm. Merci beaucoup. si j'ai si j'ai des questions, à me poser, <laughs> je serai à vos côtés pour, pour, pour répondre dès que je peux. Mhm. D'accord. Euh, merci, Excellence, d'avoir accepté notre invitation. Euh, nous savons que vous êtes euh, trop pris actuellement par rapport aux événements qui se déroulent actuellement. Mais ma question a été euh, la question que j'ai posée en début d'émission, c'est-à-dire que

Par contre, euh, votre question nécessite euh, euh, un, un, un, développement euh, très historique et très euh, chronologique, mais euh, pour ne pas prendre la tête des, des spectateurs dans les détails, la, la, question palestinienne ne remonte, ne pas à, ans depuis la Nakba. c'est-à-dire la tragédie du peuple palestinien, cette tragédie qui, qui, qui a, fait, qui, qui a vu euh, l'expulsion de deux tiers du peuple palestinien de sa terre ancestrale mhm. et historique. Euh, en tant que peuple autochtone, euh, on, a, on a bombardé 531 et villages, causant les meurtres de plus de 15 000 Palestiniens lors de cette première guerre. Et la, le résultat final, c'est qu'Israël, qui était un projet colonialiste planté dans un cadre, dans un contexte de, euh, de, de, d'un poste, garde pour les intérêts impérialistes britanniques, en tant que projet colonialiste qui servent seulement aux intérêts de, de certains pays de l'Occident, euh, euh, elle a été plantée au cœur de la Palestine. sans aucune légitimité, basée sur une promesse, euh, euh une euh, euh, la promesse de mais le le fruit de cette alliance impérialiste et sioniste qui depuis 1907 quand le Premier ministre britannique Campbell a réuni euh, nombre de et ils ont décidé de mettre à, à l'est du canal de Suez à, à une entité étrangère, une entité euh, qui sert à, ce poste d'avant-garde pour assurer la, le contrôle de la route de la soie vers l'Inde et la Chine, et également le contrôle de ce carrefour qui fait euh, une axe stratégique entre trois continents. Bref, les, euh, euh, intérêts des uns et des autres étaient conjointement intersectés. Et par la suite, les Palestiniens ont commencé à subir, euh, à subir depuis près d'une centaine d'années maintenant, euh, euh, euh de leurs terres par la force, et jusqu'à 1948, cest à le Nakba, là c'était le de malheur avec cette tragédie, euh, cette tragédie historiquement euh, euh, sans, sans, précédent et sans semblable. il fallait une deuxième guerre pour réoccupe la Palestine historique, cest les, les, 22% qui n'étaient pas encore occupés, à savoir la Cisjordanie, la bande de Gaza et euh, euh les, le dossier le plus vieux dossier, la affaire euh, euh, posée à table des, des, des, des, des nations euh, de l'ONU et même avant de la Ligue des nations euh, euh qui a euh, précédé l'ONU. Maintenant, euh, toutes, les, toutes les résolutions unisiennes, toutes les condamnations et les appels de la communauté internationale n'a jamais été accompagné de force. Donc, euh, pourquoi nous sommes là Parce que euh, la, Israël défend le droit de la force, et la Palestine défend la force du droit. Et entre deux, ces deux théories, euh, on, on, verra qui va, qui va triompher. Mais nous croyons en la justesse de nos droits et en, en, aux arguments valables de nos réclamations. Par contre, nous n'avons pas la force euh, qui fait appliquer ce droit. Mm. C'est pour ça Israël euh, agit en toute impunité, en toute arrogance, on fait fi à, tout, à tout le droit international parce qu'elles ne se sont pas en danger, elles ne se sont pas lésées, ne sont, pas euh, aucunement euh, euh, euh menacées ou, sanctionnées. Donc notre grave problème aujourd'hui, c'est que ce droit international est, est, est, est, mis en danger parce que dans son ensemble, parce que tout simplement, euh, il n'y a pas le caractère contraignant. C'est-à-dire, on avec cette complicité, on peut continuer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout simplement parce qu'il y a une puissance ou deux puissances au sein du Conseil de sécurité qui ne veulent pas saisir le chapitre 7 de l'ONU et en, en, en, en, contraignant Israël euh, qui menace la paix et la sécurité internationale. D'ailleurs, c'est le chapitre qui s'applique à Israël complètement. Et donc, au lieu de faire, euh, de faire une ingérence Euh, euh, collective internationale afin de, de, de mettre, euh, de, de, mettre barrage à cette arrogance, à cette impunité israélienne, et puis faire plier Israël, le, le mettre à genoux, le, le faire plier devant ses engagements internationaux en tant que grande puissance d'occupation, parce que c'est la, la, seule, la seule descriptif juridique d'Israël aujourd'hui. Mmh. C'est une puissance d'occupation, c'est un oppresseur, c'est un agresseur, euh, nous ne sommes pas dans un contexte de conflit ni de guerre, parce qu'une guerre, ça veut dire nous sommes, nous, nous, euh, qu'il y a deux, armées qui se confrontent. Nous n'avons pas un conflit. C'est justement une oh. affaire oh. d'un mm-hmm. peuple opprimé, un mm. peuple martyrisé, mm. un peuple emprisonné, un peuple exilé, un peuple sous occupation et sous colonisation, un peuple dans un système de partage, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'organisation de défense des droits de l'homme, mhm. qui est le Human Rights Watch. Il a quelques semaines, elle a accusé de persécution. Mhm. Mhm. Euh, excellence, <laughs> ah, nous n'allons <laughs> pas vous retenir pendant longtemps. Maintenant, tous les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Quel est le, message que vous délivrez au peuple sénégalais face à ce qui s'est passé euh, aux Palestines bah, restez avec nous, restez confiants en la justesse de la cause palestinienne. Euh, euh, euh, votre, solidarité était exemplaire, à, tous les, à, toutes les nations islamiques, à tous les pays frères et amis. Vous étiez toujours pionniers, vous les Sénégalais, et je crois que nous sommes fiers de vous. Nous sommes très reconnaissants, ça nous a et vraiment, on a besoin de cette solidarité, et on a besoin que cette solidarité populaire soit, soit traduite également en actes, euh, euh, euh, en actes en actes aussi tangibles qui, donneront également un changement dans les rapports de force de demain. Merci beaucoup. Merci <laughs> merci à vous. Merci, merci, Excellence euh, Safat Abraguet, qui est l'ambassadeur du Palestine euh, Sénégal. moo fi teewal Palestine ndeysaan dégg ngeen euh, kàddu yi mu hmm. Hmm. xam naa balaay sëñ Ahmed di jël bu fekkee. Euh, waaw rek ah, waaw mën na ko euh, mën na ko tënk waaw. waaw <laughs> Fane moom dana tekki français. waaw <laughs> Fane moom moom laay bàyyi mu tekki français kon su ko defee sëñ Ahmed waaw. daa mel ni ñëw na sax dëgg dëgg dëgg ci li ñu. waaw dëgg dëgg dëgg ci thème bi نشكر السيد السفير سفير دولة فلسطين في السنغال ومن خلاله نشكر كل المنظمات الأهلية العاملة في مجال الدعوة الإسلامية الذين يعدون إن شاء الله لتلك الحشد الجماهيري ليوم الجمعة القادم تضامن مع هذا الشعب الأبي الشعب البطل الشعب المجاهد Euh, nujidu lahu euh, tudaamunna bismina bis kulul munazamat wa bismi kullu turuq suufiya mhm. euh, laallakum laahastum anna kullu turuq suufiya aadana tadaamunu maakum wa insha allah natamanna an yasila hada sawt ila ixwanina fi falastin xata mhm. yarifa an almuslimina fi sénégal yatadaamanuna maahum bi turuqiha suufiya wa bi munazamatiha alxayriya minha wal ahliya wa daawiya mhm. kon fi ñu fi ñu tolloon ci waxtaane mooy waxoon ne ñu ngi sant bi ñu boole jotaay bi. Mhm. di jotaay yiw mhm. di sant mbokk yi ñu bokk ak plateau bi. Mhm. waaye di sant kilifa bërëb bi ak mbokk yi ñu bokkal ci liggéey bi. Euh, di beral cant aussi euh, deuxième plateau bi war a xew ci ginnaaw li te mu muy continuité bi rek. mooy ànd sàmm jikko yi. suñu mbokk suñu xarit suñu Babacar bu mu nekk euh, di kenn ci ñun. ndax heure bu ñëwee Thiès du dugg Thiès te gën te jaarul ci sama kër. wala bu fa nekkee bu fa waree dem te ne moom fa dinaa fexe ba ma yëg ko yebal fa sama njaboot ñu teew fa. Mhm. kon ñu koy sant bu baax di ko jaajëfal ci taxawaayam ak pastéefam ak mhm. waaye di di di di di sant sama maire dëkk aussi Talla Sylla la. Mhm. Euh, ndax ñëpp xam nañu engagement am léegi bi ma ñëw ci yoon bi dama dama woo ma xam moo ko ni fi laa jëm si mu ne ma noo xalaatee àjjuma ma ne ko am na ñu doon xalaat ma def ko Thiès comme ni ñu defoon ba ñu karkare karkare yoon bi jamono yëpp passé. Euh, ma ne ko waaye man ne li ma sentir mooy ni ñëpp rajo Dakar rek. Hmm. ba àdduna xam ne Dakar yëngu na. Hmm. parce fan yii booy gis image yi. ci hmm. Libye ci Turquie ci feneen da nga gis ni maanaam capital yu mag yi ci àdduna bi yëngatu na. ñu ne ko nag may def Thiès. Euh, ñii di def Dakar ñii def Ndiourbel nañ ñëpp rajo Dakar rek. mu ne ma contre li di. transporter oto yëpp man maa koy jël en charge incha allahu taala ak badul li ngeen war a yóbbaale hmm. kon na ko jot naa jaajëfal hmm. euh, te ku ko xam si xam ni maire la waaye maire bu jege population la hmm. euh, bi ma ñëw ci woon it maa ngi jokkoo su ko xarit suñu Modou Kara Mbacké Nouré ni euh, nga xam ne lu mu xewle lu nekk fii gisul ambassadeur Palestine ci wetam wallaay xol bu du sedd la mu def Sorano man ak sëñ Assane mi ñoo fa àndoon sëñ am na suñu wet mais keroog ambassadeur Palestine na fa jël fa kaddu léegi la ma woo bu xatul woon nga jaar ci kër gi de dem boo demee ci télé bi na xamal ne man ak sama njaboot ñu ngi seen biir mu mel ni kon mbiru Pape Sine dafa ñoon ñëpp mhm. ni ko suñu am waxee rek ci introduction rek mhm. mu tax a àdduna ci mhm. boobu sax li xewagul euh, suñu Abdou Sow mu sëñ Chouaïb bu gisee ba ki dé moom déclaration historique bi mu ci def sëñ Bass Abdou Khadir maanaam fan yii bu ñuy wax téléphone daanaka suñu suñu suñu suñu communication li ci ëpp ci Pape Sine lañ ciy wax lu ngeen ci xalaat ak lu ngeen bëgg a def ak koy defee démb rek te wala tey ci bëccëg asafura maa ngi jokkoo ak suñ euh, jiili Moustapha Abdou Aziz mi nga xam nga xam ngeen lëkkaloo gi muy def ci diggante Touba ak euh, réewu arab yi mm-hmm. depuis jamono si Sidi Moxtaar ba tey sëñ Muntaxa ñëw yeesal loolu waaye démb rek damay woo naan ma war nañoo xool taxawaay bu ñu def mm-hmm. ma ne ko taxawaay bi moom am noo pare mm-hmm. xanaa ñu xool nu ñu ko fësale rek mm-hmm. <laughs> ci bëccëg gi maa ngi jokkoo ak sama mbokk laji mbàkk yi woo naa ko jotuma ko ko moom ba ndajem àjjuma ji eh, taali bi Sëñ Tuubaa yi ne rek waaw ah, xam Sëñ Tuubaa xam ne léppam lislaam la léppam xaddi aadi la mooy cause bu noble kon nag bu àjjuma te ginnaaw fa ñu koy defee corol masalik eh, ci sama tur ak ci turu taali bi Sëñ Tuubaa yëpp maa ngi ñaan ku julee masalik rek na dem place Obélisque. waaw ba ba ba yëf yëngu kon daal ñu ngi sant suñu borom baax a baax. Euh, di wax caay-caayu man sax du ma wax du ma wax Israël parce que euh, sama leader politique mooy Kadhafi te daa wax Israël aduwu sa ni doon wax. l'ennemi mhm. la wax <laughs> kon may euh, foofu laa ji référence mooy mooy addu addu la noonu la ba karoog muy nangu ni mhm. Palestine réew moom mu doon réew Palestine doon réew mhm. waaye fi fi nangu Palestine doon réew moom am noonu lañu ko jàppe rek kon uh, ndax bu yàggul daaw wala daaw jéeg uh, daa am daje boo xam ni réewum Palestine nañ koy daje ca xut da ci da ci woo borom xam-xam yëpp. Mm-hmm. ñu jógee fan ci àdduna bi uh, defe naa deux mil deux mille dix neuf. Mm-hmm. mois de mai ñu invité ñu man ak Oustaz Dame Ndiaye ñoo fa teew am lu mat quatorze pays yoo xam ne ñoom palestiniens ci seen nangu. ñu ne ñee ñoo fa nekkandi. ñu ñu sàkku nii ñii dañ suñu ngan lañ dañoo bëgg a ñëw romb seen frontière yéen juif yi yéen noon yi pour ñëw xut dafa benn ndaje mhm. ba kenn ku ne si ñu yónnee la sa autorisation d'entrée mhm. waaye bi nee ba Jordanie quatorze pays yëpp fa lañ leen bloqué mhm. xam ne ñun kenn ci ñun àggul àggul ba tey euh, Palestine te boobu dañoo war doon Jordanie jël ay biis dem euh, réewu Palestine nga xam ñun foofu lañ mujj toog ci Jordanie loolu doon xew Porsche ñu ko doon siiw par vidéoconférence xam nga caay caay a weesu loolu. waaw jël jël imam Assane Seck ni ko jógeel Sénégal boo ñëwee ba Jordanie surtout mi ngi ci frontière boo demee da nga fekk sa visa. loolu ñoo tudd visa à mhm. ba foofu ñu ne la yow ñoo ñoo la ko may waaye nangu nañ ko mënatoo ñëw. xam nga caay caay mënut a weesu loolu. Mm. waaw donc mu mel ni noonu la boo xam ne mi ngi fi. gis naa ne def ay marche buntu ambassade ba ngay jor ko mm-hmm. mais li am solo dëgg dëgg dëgg mooy ne àdduna bi yëpp xam ne jullit Sénégal taxaw nañ di métti lii nga xam ne mi ngi xew ci réewum mm-hmm. Palestine. Mm-hmm. démb rek bi may seetaan ñu ngi wane ni benn immeuble boo xam ne ay ay organe de presse ñoo fa ne ay étranger. Mm-hmm. ñu dem màbb ko di màbb jàkkee di rey xale yi di rey maanaam maanaam barbare yeeg yu toll noonu mu fi mu toll ci àdduna bi maanaam àdduna dafa fees foofu ci gàttal. Euh, loo xam ne ñaar fukki ci ginnaaw ñu ngi ko doon gis ci ci Afrique du Sud demaat ba vingt après ñu koy siibaraat ci am réew moo xam réewum Euh, lu mel ni masjidul aqsa nekk fa mhm. ak masjidul aqsa li mu représenté ci xolu jullit yi xut mhm. euh, su nekk fa nga xam ne ñun suñu mag ñu baax ñi sax bu ñu mosaan dem Màkka mhm. pour pour mën a pour mën a maanaam ci bëri bu ñu mosaan jaar dem Màkka te àgguñu foofa bu ñu dëpp dañu fa jaar ndax xam nga xam bërëb boobu li mu symbolise ci lislaam donc nag bu ñu demee ba heure bu nekk maanaam ana adaawata takarrar bayna yawmin wa axar donc loolu moom ñun ñëpp war a taxaw manifesté wu bu kenn ni la bu kenn ni xaadir la bu kenn nit ñëpp taxaw ni xadiya Falastin xadiya insaaniya la xadiya diiniya la xadiya taarixiya la maanaam maanaam maanaam conf maanaam mbirum histoire histoire la mbirum humanité la mbirum àdduna la kon daal man sama baat bu oyof bi nga xam ne tekk ma dara représenté muy bëri maa ngi ñaan jullit yëpp altine asafra ajjuma maanaam nañ dajaloo oblis bu ñu wax xam ko loolu parti bu ñu xam ko loolu tarixa bu ñu xam ko loolu islam na fa ñëpp daje mhm. ngir fësal taxawaay jullit Sénégal ci muy boobu incha allah mhm. tarkal ba ci waxtaan nañ dugg ci yéen ndetaay bu soobee dëgg la mhm. jërëjëf sëñ Ahmed ñu gërëm ko bu baax a baax Imam Assane dañuy ñëw ci yow euh, directement euh, le 29 novembre 1947 dafa mel ni ndaje mi nga xam ne ni Nations Unies defoon na ko dafa divisé woon dawla yi Palestine ak Israël waaye dafa mel dafa yemoon ciy wax rek waaye dem nañ ba ci biir ñu bëgg mëbaale li nga xam moom lañ fa dese ñaaw na ci image tey bu fekkoon ne beneen réew lañ koy def bu dul réew boo xam bu dul islaam mm-hmm. danañ jug ne euh, euh, euh, l'humanité danañ jug ne façon organisation ak ONG yi ñu tëral mm-hmm. droit de l'homme danañ yëkkati yooyu teg ko ci ay tappale ngir fas yéene défendre ña fa nekk te bokkul ci lislaam mm-hmm. waaye ni ñuy rayee jullit yi ñu di ko filmer di ko wane en image ñëpp di ko seetaan rek geste bu ñaaw la donte bu ñu waxoon minal masjidal xaraam yi ilal masjid al aqsa rek doyoon sëkk ñu koy célébrer ak di wane na ñun ca ñu bokk tey lan lañ ko war a métti la donte wax naa léegi acte bi ñu njëkk a signé ci eh, ñaari dawle yi ci nangu ñu partage kii tàmbalee fi yam fii kii tàmbalee fi waaye dem nañ ba mënatuñu loolu waaye gis nga bërki démb bi tey ordonnance jógee taxaw ngir fas yéenee eh, jàppale leen yeneen réew taxaw na ñoom it ngir fas yéene jàppale Israël kon léegi nekkatul léegi niñ ko jàppee waaye léegi politique la boo xam ne dafa ànd ak caay ni ko sëñ Ahmed waxee. tabaarakallah. Euh, jërëjëf. Mhm. ci laaj boobu. Mhm. may tàmbali rek. Mhm. wax bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin. di nuyu macha allah mbooleem ñi ma bokkal plateau bi sunu xarit seen xarit xaritu ñëpp Oustaz Ahmed Saloum Ndiaye Naasiru diini nga xam ne li waykatu arab ba doon wax ne qalla an absarat aynaaka daa laqabin illaa wa maanaahu law absarta fi laqabin tur dafa am solo ñu ko tuddee kii taxawu diine ji ah bu melee ni mu mel ci taxawu diine ji taxaw bu amul frontière dañ naan tur bi rek moo wuy si macha allah seq ko ñépp nag ndeysaan loolu la ma neexee amul frontière micro bi baax di kontaan ci kër gi yàgg naa koy wax su ma seetee presse islamique. Mm-hmm. qualificatif bi ñu koy jox. Mm-hmm. kër gu ko jëmmal dëgg dëgg jëmmal. Mm-hmm. man bii moo ci jiitu. ndax am na ay kundum kundum. ak ay kumbal. ak yu bëree bëri yoo xam ne fépp nga koy fekk waaye amul fii. dëgg la. bu ko yëkk bu ko diine yëkkatiwut. dëgg la lislaam yi dëgg la dëgg la. kooku ay jagle la fay. ñu mm-hmm. mën a yëpp mën a teg bët. Mm-hmm. te nag lu dellu ci kër maam Cheikh Ahmadou mm-hmm. noonu la noonu rek la mën a demee. ndax maam Cheikh Ahmadou ku ko xam-xam jàngam. jàngatam. lépp lislaam lépp jullit ñi la. damay faral wax ne ku bokk ci kër googu. te xajoowu la jullit ñi ñëpp man danga nga ma jaaxal mm-hmm. ndax ñëpp la jox place ci ay jàng benn mm-hmm. bi naan ku bokk ci këram aussi te bëgguloo xam-xam aussi mm-hmm. da nga ma jaaxal <laughs> kon jërëjëf sëriñ Mbàkke yu fay ayam gi wax dëgg yàlla masaalikul jinaan rek def ci doy dëgg la doyoon na ci dëgg la waxuma laa kër gii mm-hmm. ak yeneen ak yeneen mm-hmm. yal ko yàlla yokkee maqaamam yokkee ko garaatam yokkee ko ngëneel mm-hmm. eh, di nuyu al ustaas muxtaar mi nga xam ne yàgg nañuy jonjoo ci yoonu jottali ak liggéeyal lislaam liggéeyal diine maa ngi seetlu bi nu yëkkatee ci affaire fulaar islamique mu dalaloon ñu ca ñu wax defoon ci waxtaan boo xam ne macha allah ah xam naa ne jotaay bi moom jox nañ ko yitte ndax bu fekkee ne directeur de programme moo toog. Hmm. <laughs> waaw dëgg la dëgg la <laughs> de waaw programme boobu bayreel nañu ko. dëgg la dëgg la ma tur bi. Hamidou Diop. waaw ah, Hamidou Diop naa ko moo gën ah, dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la <laughs> dëgg ngi lay jiital. jërëjëf laaj nag. mbiru Palestine. Mm-hmm. li ko tax a jafeñal mooy li ci lalu li ci lalu li ci lalu dafa xóot dafa bari dafa yaatu suñ demee ki njëkk a woote amal état sioniste ñu koy wax Théodore Herzl ca tàmbale da doon wax ne pour l'Europe. Nous serions un morceau de rempart contre l'Asie. Mmh. Et nous constituerons mmh. une sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. mu ne nun li ñu li nu samp ci gox boobu du diine du droit international du nite du jikko waaye pays Europe yi nga xam ne tey jafeñ-jafeñ ak jaxasoo ak salfaañoo lañu ñu bëggal réewu jullit yi ci seen loxo lañu juddoo ñoo ñi samp pour gox boobu jàmm du fa am dal du fa am féex du fa am mhm. RSL ci boppam moo wax loolu pour l'Europe nous serions là-bas un morceau de rempart contre l'Asie mhm. Mhm. yaakaar naa ne benn euh, conseiller de l'un des présidents des États-Unis d'Amérique de Nord, nous devons comprendre que les divergences qui existent entre nous et les pays musulmans, ce ne sont pas des divergences entre des pays, ce sont plutôt des divergences entre la civilisation islamique et la civilisation chrétienne. La création mmh. et le maintien d'Israël en est une des stratégies. Hmm. Elle n'est que la continuité des guerres trois ans mu ne jafeñ-jafeñ yi am hmm. suñu diggante ak réewu jullit yi lu ci droit international lañ koy regle du ci ngor lañ koy réglé du hmm. ci nite lañ koy regle yooyu buñ ko ci doon réglé jeexoon na bu yàgg hmm. mu ne waaye suñu wujj bu mag bi te yàlla moo ñu njëkk wax ci alquran ni ñooy suñu wujj yi walan tarda anka al wala nasaara xatta tattabia millatahum wala yazaaluuna yuqatiluunakum xatta yaruddukum an dinikum in istataau jaamaar loola suñu diggante ak li lislaam jëmmal kon mbir mi buñ ko jàngatee wut noonu rek yu bari duñ ko mën a comprendre ma lay wax ne sionisme bi nga xam ne moo indi xalaat boobu yàlla dafa doon wax ci yëgu di alayhim dillatu aynama thuqifu illa bi hablin min allahi wa hablin min annaas yàlla def leen toroxal di leen toroxal di leen toroxal di leen toroxal ba yàlla nee du ñu sottal dara dara dara dara dara lu dul nga xam ne ñeneen ñoo ñëw jàppale leen ci dooleel leen ci tàllal leen loxo gis nga sionisme bi juddu mm-hmm. Hmm? te RSL mi juddal ko ma nga lay wax ni ki ko ko njëkk a conseiller mi ngi tudd William Esler William Esler boobu mooy jàng seen téere bi yaa su ko appelle le sionisme alors chrétien ñoo gën a bëri tey les sionistes juifs. Mhm. plus de deux cent trente millions. surtout aux euh, aux États-Unis d'Amérique. Mhm. chrétiens ya fa nekk surtout protestants yi 41 pour cent yëpp. Mhm. c'est alors chrétiens. Mhm. donc loolu dafa gën a compliquer mbir mi. ñoom dañu tekki seen bible bi tekki yin woo xam ne moo leen def ñoom 300 euh, deux non 230 yooyu gëm Israël ni nu ni ñu ne ne la ñu gëmee seen diine ak seen yonent noonu la ñu gëmee mbiru Israël. ba ci kilifaay Isra eh, eh, eh, États-Unis yu bare bare bare bare mhm. Mhm. kon dama la bëgg a wax ne mbir bi mbiru réeral nit ñi ci diina daf ciy bokk mhm. te bu ñu fàtte ne aussi barki Dembo Njaay y avait ce qu'on appelait l'inquisition mu taftish ci turu diina jooju lañ ko instauré woon xeex ci ay scientifique yu bare rey ci ay scientifique yu bare bokk na ci Galilée ak ñeneen ak ñeneen même erreur boobu est en train de se répéter parce ce courant la qu'on appelle le sionisme chrétien bi nga xam ne sont plus nombreux que les sionistes juifs. Hmm. cent trente millions alors que les juifs passé wuñ 20 millions. kon côté diine boobu daf ci bokk. Hmm. côté géopolitique bi daf ci bokk. France tey Napoléon Bonaparte. mais da ngaa jàpp ne côté diine bee ëpp. côté diine bi. Euh, am na ci doole trop. parce que ñoom dañu dellu ci texte. waaye nag nañ ko jàngatee moo reelu suñ demee ci jeunesse dañuy wax ne Dieu conclut une alliance avec Abraham en ces termes à tes descendants je donne ce pays du fleuve d'Égypte au grand fleuve d'Euphrate mm-hmm. mu ne ko Ibrahim yàlla nekk kenn si yéen si ñenn ak yow benn kayit <laughs> waaye loolu rek la de mm-hmm. mooy suuf sii mm-hmm. sa njaboot laa koy jox mm-hmm. ñoo ko moom donc ñoom ci verset yu mel noonu lañu dellu tekki ko tekkiin yu nu jiit yu nu juutal ndax que buñ ko tekkiwu doon tekkiwun yu nu juutal buñ ne njabootu Ibrahim wér na ne Ismaayila ci la bokk seen bible bi même tudd na Ismaayila boobu douze fois ne doomu Ibrahima la maamu arab yi la te arab yi ñoo doon dëkkee ci suuf soosu depuis trois mille ans wala quatre mille ans avant Jésus-Christ continue di fi dund aussi deux mille ans après Jésus-Christ six mille ans alors que nit ñi li ñuy réer réer ci wàllu histoire yëpp ak li ñu leen ci jaxase yëpp. Mhm. wala li leen ci terroriser yëpp. Mhm. ma wax ne ne de Israël juif yi li ñu dominer réewu Palestine passewul quatre cent cinquante avant Jésus Christ ci jamono Daoud ak Souleymane neuf cent trente cinq mu jeex après ñaari royaume yi benn bi du Juda benn bi di Israël bu Juda bi moo gën a yàgg mi ngi jeex. alors 586 euh, avant Jésus-Christ ci Nabucodonosor beneen bi alors 722 la jeex donc boo calculer nga commencé ko ci royaume bi mujj a jeex ba nguurug Souleymane ci n'aura que 411 loolu la ko dominé léegi loolu par rapport ak 6000 ans li fi yi di def représenté lu 7 pour cent nit ñi dañ jàngat histoire universelle. ndeysaan. ku am sept universel sept pour cent nan nga ci mën a sukkandiku ci sept pour cent yooyu jox ko doole ju ëpp li ngay jox borom quatre-vingt-treize pour cent waaw bu ci wàllu diine eh, imaam nga baal ndax ndax du ndax du yi tamit nag jullit yi ah. ñoo defut li leen suñu borom santoon waa dëgg la ci ñàkk ànd ñàkk booloo ba tax ñu yokkat hmm. loolu mu leen eh, fala tanaasoo fa fa tasxaba riixakum yaakaar naa noonu la waaw waaw loolu la leen waxoon léegi nag bu ñu demee tey ji ba loolu am ah. juif yi ngay wax ni àdduna bi xëy na matuñu vingt millions waaye ñu defub dank hmm. ba lu leen sob ci àdduna bi am hmm. ñun ñu doon daanaka milliard te mënuñoo fexe ba ba dakkat lii loolu kon nag kon fan fan la problème bi au lieu ñu koy xool ci juif yi nañ ko xool ci ñun. ma man d'accord naa ci li nga wax ne ñu deful ndànk. Mhm. waaye gis nga bu ñu leen jàppale wu doon. Mhm. depuis Bonaparte. Mhm. depuis 1943 Angleterre. actuellement États-Unis d'Amérique. 1973 ba 2003 xam nga Israël Amérique ñaata la soutenir Israël. 1600 milliards de dollars. soo ko séddale woon adduna bi ku nekk dana am 5700 dollars bu ñu wax Israël moo def tànk moom kenn kese. Uh-huh. dañ ko jàppale. Uh-huh. yàlla woo waxoon na ci alxuraan toroxal na leen toroxal toroxtaande boo xam ne du ñu demal seen bopp. Uh-huh. kooku moom dama bëgg ñu boole ko ci jàngat bi. du Israël kese. julli ñi nag am nañ problème yu bare bare bare bare xam nga Seydina Omar li mu doon wax nahnu qawmun. a'azzana Allahu bil islam. ida tarakna al islaama wa natlubu al izza min gayrihi adallana allah suñu doole suñu victoire suñu ndimbal suñu jiite yeneen xeet yi mi nga aju kenn talaay ni ñu toppee lislaam ni ñu toppee diine te li nga wax bennoo googu dafa bokk ci jàngale diine jàngale lislaam yi gën a rëy wa anna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun yooyu yëpp nag buñ ko bàyyee mhm. surtout suñu mbokk arab yi mhm. dafa am ku ne wax Cheikh Kishka mhm. xatib bu mag la bu ñëpp xam équation moom xam nga dafa mën a def ay équation dafa doon wax ne arab naaqis islam tusaawis équation arabe mooy islam. Mhm. égal zéro. waaw. <laughs> boobu nag moo ñu topp tey. am na loo xam ne ci ñun lay dellu. mais am na loo xam ne ci nekk ci ñu nekk ci gannaaw Israël di ko jàppale. lay dellu di ko soutenir ci alal bi pour jeex. Mhm. mille six cent milliards de dollars. Mhm. trente pendant trente ans. man na budget vingt pays arabes pendant vingt ans. ak itam deux cent trente chrétiens sionistes yu nekk États-Unis d'Amérique mhm. yore fa ay université mhm. yore fa ay chaîne de télévision loolu boo jëlee pétrole pétrole pétrole bi pétrole bi julli di yor tey même tey même mais mais mais loo loo loo loo loo juif bi ñuy wax l'objectif bi ah. hmm. dëgg la loolu ko war a dugal ci bi. dëgg la tubaarkàlla jërëjëf dafa mel ni. Ah. imaam laal na imaam laal na ay points. Ah. yoo xam ne sëñ Maxtaar laa bëgg mu ñëw ci. xam naa li taxoon sëñ Ahmed sàngal ko ne ma Oustaz Assane moom ñam leen ko rek. <laughs> Eh, tubaarkàlla li yoo taxoon ndax moom eh, baarakàllaa. taxawaayam mooy taxawaayu eh, wala tafarraqu rek. Mm-hmm. ndax li sëriñ bi bëgg. mooy lislaam mm-hmm. te sëñ Tuubaa dañ lu ma am. ci tagg yonent bi alayhi ak topp ko ci laa ko amee. Mm-hmm. bi xidmatin libni abdillahi jaali bi ma noota wa daafia ma nukfa min al mihani mhm. kon moom taxawaayam boobu lay taxaw ci alquran moom lay taxaw ci Cees gële mu nekk mhm. waaye sëñ Jibril mhm. usaas laal na loo xam ne xam naa sëñ Ahmed laa ci laa laa ci interpellé muy euh, sëñ Maxtaar Sarr sëñ Ahmed Maxtaar euh, Maxtaar moo gis Ahmadul Maxtaar waaw <laughs> ah, euh, waaye sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar dafay mel ni tey seetaan am na dégg imaam li mu wax ci mobilisation bi am parce que Israël du dem te gis nga heure bu ñu ko tëkkoo bañ jekku ko rek mu tàllal loxoom mooy ñun kat li naan euh, euh, sedd la bukki lay doon wala ñu ne làq doom dóor doom noonu lay demee te tey moyen yu yàlla jox wala yu yu yeneen réew yi am rek yàlla privilégié na ko ñu est-ce que jotul mobilisation boobu ak bennoo boobu bi ko suñu borom di wax est-ce que tàmbaleewul sax ci boole suñuy doole ci ku ñuy néewal doole ci suñu bopp ñu taxaw parce ñaaw na te it yàgg na te ñoom ñi ngi jeex démb dama ci gis euh, image bu triste imam euh, xale boo xam dafa jàkkaarlook soldaar bi mais daf ko gëdd harcelé soldaar bi ba du koo dóor xolam jeex mu dóor ko mais dafa reculer dem ne ko mënoo mënu leen tere ba duñ dugg ci jumaa ji di julli waxtu juróom yi di dundal islam comme ni mu ware ban jàngat nga ci am ci wexda boobu war a bismillahi alimi wa sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sa euh, Hamidou Diop ñu ngi laa nuyu. a baax sa ñu ngi la nuyu Hadj Jibril Ndaw directeur programme di ko ziyaara di ko wàccee wàccu waayam. Mm-hmm. barakallah. waaye di nuyu Oustaz Hassan Seck. ni mu ko waxee yàgg nañoo bokk ay jataay. ci lu wér. Euh, ñu yàgg gi si taxawaayam macha allah. ñaan yàlla mu dëgëral ko bu baax a baax. waaye di nuyu si euh, Ahmad Saloum Dieng nga xam ne turam lañ njëkk a gis ci jëmmam di dégg turam ba gis jëmmam ci écran yi ba yàlla dogal tey la ñu bokk jotaay nii toog moom it ñu ngi koy ziyaara bu baax ñu ngi koy gis ci waar wi ak taxawaay yu rëy yi rafet yi nga xam ne mi ngi ko ci amal euh, ngir gagner rek xam naa damay dugg ci sa laaj bi euh, li nu war a njëkk a bàyyi xel ci li xew mooy dëggalaat waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wamaa yantiqu anil hawe ndax ba mu waxee ne lislaam ci tumuranke la dooree te ci tumuranke lay dellu bu yu mel nii amutoon mën nañoo jiixi jaax ci waxam jooju bada al islaamu gariban wa sa yaudu gariban fa tuuba lil guraba lislaam na mu doore woon ci tumuranke ci tumuranke lay dellu yamu ca mais dem na ba wax ne jamono dana dikk goo xam ne jullit ñi dañuy bari lool waaye nag seen noon bu néew bi moo leen di dominer bi mu njëkkee tudd dal gi ñu dal ci seen kaw jullit ñi ci mujjug jamono ñu ne ko xanaa boobu moom dafa fekk ñun bariwunu mu ne aha kay na fekk bari ngeen lool waaye nag la dugg ci seen biir dana dugg ci seen biir ci yoon jox ba du ngeen bari solo ba seen noon li ngeen di bari bari moom la muy néew néew mën na dal ci seen kaw loolu ba mu koy wax tey mën nañ ko dëggal beneen bi it waxoon na ne mu jóg jamono xërëj dana bari saxaabatul kiraam ne ko lan mooy xërëj mu ne alqatlul qatl muy rey gu bari gi kon boo jàngatee li xew ci àdduna bi nga xam ne yu ci bari daraan cité ba ci réewu arab yi ak la fay xew di wax safara sa fay tàkk loolu yëpp day wane ne ca dëgg-dëgg ñu ngi ci mujjug jamono li xew Palestine nag kon ni ko Palestine comme ni ko xaaj Jibril waxee léegi dañoo judd rek ñun di dégg problème mu Palestine mu nekk problème boo xam ne bu yàgg la waaye li ku nekk ci nun war a yëg mooy lay xew Palestine bu nu ko ignorer mu xëy xew senegal wax ngeen ko ci biir waxtaan wi ñoo xam ne ñoo moomoon seen dëkk yilifoon ko toog ay étranger ñëw sanc si benn dëkk bu ndaw di yokk di yokk di yokk ba ñëw tey yegg si fii nu yegg si at mu nekk ñu jàpp ne dañuy gën a avancer ba am fit bu toll ni tey di dugg ci biir jàkka dafa fekk ay jullit ñuy julli ñu dal ci seen kaw fii jamono toll ci àdduna beeg li ñuy woote ci wàllu droit de l'homme di ko woote ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama àdduna bi yëpp ne selew loolu ku mu tiitalul doo nit ku yaakaar ne loolu dal ci seen kaw senegal mën na cee mucc kon yëgoo li xew ba tax na jullit bu nekk dafa war a yëg ni euh, lii xew fële ca Palestine Palestine da di dëkk boo xam ne ni Màkka mel ak Madina ci jullit ñi la Palestine mel ci biir sunu pas-pas masjidul aqsa wax nga ko léegi sunu borom ci alquran ci jàkk yi mu tudd la bokk subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al basir yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi muy ràññaani sunu borom mënoon na ko jaarale fu nekk laataa muy yéeg waaye bi mu dee déparee màkkatal karam sunu borom nee na ca masjidul haram masjidul aqsa la dem fala alburaax wàcc moom mu yeew fa waruwaayam boobu mu war fa yenent ya daan yeew seen waruwaay mu dugg ca biir jàkka ju tedd jooju fekk fa yenent yi ci kéemtaanu yàlla mu dekkal ambiyaaw yi yonent yàlla Muusa yonent yàlla Isa yonent yàlla Ibrahim ñu liqaamal ko mu jiite leen yéeg jëm asamaan nga xam ne asamaan dañuy wax ne buntu asamaan foofu la nekk ca Jérusalem ndax yonent bi ba muy yéeg foofu la yéege mais sunu borom xoolal bi mu nettali dana bërëb ba baaraka naa xawlahu la ko wër dañ koo barkeel ba léegi gëstukat yi ñu ngi wéy di gëstu ci baatu baarak naa xawlahu lu tax yàlla ne masjidul aqsa baarak naa xawlahu danu barkeel la ko wër gis nañ ne yenent yu bari foofu lañ leen suul mën nañ cee tudd ku ci mel ne yenent yàlla Muusa ci bërëb bi Israël di defee seen banditisme gi foofu noonu le lañu ko suul ci bërëb yi jar jaraloon Seydina Umar ibnul Xataab mu déplacé wu bàyyee ko Madinatul Munawara dem ba foofu ngir ziyaara ko bërëb boobu ca la bokkoon ñu bari ci Euh, yenent yi jaar fa mu yàgg am histoire di bërëb boo xam ne mosul dëñ ci histoire laataa lislaam di dikk tey bu ñu toogee ba bërëb boobu noonu le nga xam ne jumaa ji yenent bi sallallahu alayhi wa nee na ñett jumaa yi rek moo war a jaral nit mu jël billet wala waruwaayam dem ngir julli fa di seenu yool bu ëpp buñ koy fay ca jàkka jam bàyyi ca koñam muy masjidul haram masjidul aqsa ak masjidul nabawi ba ca a munawara yeneen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne euh, nga julli sama jàkka téeméeri junni lañ lay fay téeméeri junni julli lañ lay fay jàkk yonent bi ca madinatul wara boo fa jullee mu ne danañ la fay téeméeri junni julli nga ñëw ci kaaba gi nga julli fa ñu fay la junni julli waaye nga ñëw ci masjidul aqsa julli fa ñu fay la juróomi téeméeri julli imagineel tey bu ñu seetaanee ba juif yi di gën a avancé ba jël masjidul aqsa ñu teg ci loxo nangu ko ci loxo jullit ñi te seen liggéey yëpp foofu la jëm liggéey yëpp foofu la jëm tey bu loolu noonu la amee kon xañ nañ ñu benn jàkka ju tedd ju màgg juñ mën a dem julli genn julli tisbaar ñu defal na ko cinq cent tisbaar foofu lañ jëm ak loo ci mënti dégg xeex bi comme ni ko Oustaz Hassan ñoom ñi ci gëstu ci wàllu googu noonu le gën ñu ko maîtriser lu bari wër na ko waaye nag xaqiqatan mooy bërëb ba li mu symboliser gëmuñ ne jullit ñi ñoo ko war a yor mais dañ ko war a yoral ñoom seen bopp ndax bërëb boo xam ne ca jamono yeneen ci yàlla Suleymaan dañuy tudd histoire am yeneen yi fa jaar yëpp ñuy tudd histoire bërëb boobu noonu le gëmuñ ne bërëb boobu noonu le war na nekk ci loxo ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ba tax na kon li fay xew wax dëgg fa yàlla lu ñaaw la lu ruslu la di ñaan yàlla ku mel ne Erdogan nga xam ne tey képp ku nekk euh, nit la ñuy def Palestine métti la boo gisee position Erdogan ak luñ ko mënti tuddal nag nga dégg ku ne waaw dafa am lu muy xëccoog na xëccu lu ne baax na waaye daal moom lañ gis mu nekk benn président boo xam ne jullit ñi fuñ leen méttitalee ci àdduna mujjug taxaw la xew ca Chine euh, bañ leen di méttital di rey sunu mbokk jullit ña fa nekk avion la jël sol ko ba mu fees ci ay dund ci mpaj ak i médecin lu ne mu yóbbu leen mu yóbbu mu yóbbu ko fa yamu ca mu déplacé wu dem ne leen bu ngeen amul bàyyi maa ngi nii ànd ak soxnaam mooy seen yaay ànd ak i doomam ne seeni i rek seen i sœur a ngi nii du ngeen du ngeen du ngeen am lu ngeen jooy euh, mais xadiya Palestine Birmanie laay wax Birmanie Birmanie bi xadiya Palestine bi imaginel tey ban président ci àdduna moo ñeme taxaw àdduna bépp di ko dégg mu taxe waa euh, Israël ay terroriste ku dul Erdogan ne booy wër terroriste jàppal waa Israël te loolu dafa am solo mat a jàngat tey bu fekkee ñi ngi génnee ay milliards États-Unis Europe partout ñu ne dañuy xeex terroriste lan mooy terroriste Erdogan définition bu gàtt la ci joxe ne àdduna bi kuy wër terroriste demal nga jàpp waa Palestine ndax ku waa Israël kon ku mën a ñëw jël bomb sànni ko ci hôpital hôpital ñoo xam ne ñu ngi faju nga sànni fa bomb ku mën a ñëw jël bomb nga sànni ko ci immeuble comme ni ko euh, cheikh bi waxee léegi si Ahmad Saloum nga xam ne immeuble la boo xam ne nii yow xamoo ña fa nekk dangay ngay sànni bomb immeuble ba daanu mën na am téeméeri nit ña nga fa ñëpp faatu ay xale da ngay gis ne ay xale la ñuy ñëw di leen wër ci biir ay tabax yu ñu daaneel mais léegi terroriste ka ñuy tuddee terroriste ci États-Unis kooku lu mu def dafa ñëw dugg ci benn école jël fetal tiire rey fukki nit àdduna bépp di ko saw mais Charlie Hebdo barki dee moo njaay sunu njiitu réew jël avion dem fa je suis Charlie mais ñaata nit lañ fa fukki nit ak nangam kepp ñu saaga yenent bi sallallahu alayhi wa ñu saaga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ay boromi pas-pas toog di déglu ñu def acte buy wane ne lii ñu def naqari nanu waa France na teg mais ñu dem joxe seen bakkan ray fan ñañ fa raje mais àdduna bépp dajaloo ne dañuy mars ci fukki français ak nangam yu nu ray mais léegi xoolal depuis Palestine ba mu mbiri xew ba léegi ñaata bakkan ñoo fa rot ba lu mujj lii tey ñu ngi wax ay centaine ba léegi léegi fi mu toll nii ñu ngi wax ne centaine personnes rey nañ leen dafa dem ba démb maa ngi déglu Al ñu wax dafa dem ba seen hôpital yi dafa fees mënatuñoo mënatuñoo dalal ay malaat wala ay belese mënatuñ leen a dalal ndax ay junniy junniy nit gaañ nañu leen mais loolu noonu la anajesti wi Palestine yi anañu fan la ñu nekk fukki nit fukki français ak nangam gën a tedd ay junniy junniy bakkanu Palestine ba tey àdduna bi yëpp na tekk ku ci nekk naan ñu ngi woote euh, waxtaan nañu teg arme yi mais bu ñaar di xeex te xeex sax amul benn bandi bu jógee yor ngànnaayam di dal ci koo xam ne nii amul ngànnaay waa ak ñi ko jàppale nga toog naan waaw nañu toog waxtaan mais balaa ñëw waxtaan jug leen ngeen taxaw tey mm, suñu réew Afrique yi lay cëpp rek ñu ne CPI cour pénal international ñooñu ñu lan la ñuy jëriñ ci àdduna bi mm-hmm. Mm-hmm. États-Unis boo waxee ñu ne ñooy gendarme du monde anañu lan la ñuy jëriñ dara mais mbir yi li muy wane kon mooy mm-hmm. ndekete dafa am suñu benn mbokk Omar Euh, maa ngi nuyu Oustaz euh, Saïd Diallo maa ngi koy seet ndeysaan mhm. ndeysaan xam na ko dañu am daje sa ànd sàmm jikko yi mhm. Mhm. mu wax fa wax boo xam ne ba léegi dañ koy nettali mooy li mu jaral addu kalpe bi bu ko jaraloon borom kalpe bi kalpe bi du dem waaye man wax jooju dama ko déggaatee neneen dama ne léegi addu kalpe bi dafa mujj nekk borom kalpe bi maanaam ñun ñu seq kalpe bi léegi ñun ñi seq kalpe bi la am ñuy jël ci kalpe bi ñoo koy addonti ndax tey wax nga ko léegi il faut euh, bu ñuy wax mbiri tamit mhm. dana am ñu ñu joxañ baaraam mhm. tey Erdogan position bi mu am mhm. bu ko Al Saoud amoon bu ko euh, Makka amoon bu ko Arabie Saoudiya amoon mais problème bi léegi mu réglé wu jërul sa ngay tudd yeneen réewu golf yeeg nangam ak nangam Arabie Saoudi na taxawoon dóor ci taabal ji ne lii ñuy def Palestine dañoo bëgg mu dakk suba suba danañu waxtaan mbiri dakk waaye tey ñan ñooy Arabie Saoudia mooy ñi nga xam ne nii juif yi ñoo yor seen sécurité boo demee États-Unis di làkk arab wala boo demee Màkka di làkk arab ka fa dem di làkk anglais la ñuy gën a tóojal gën ko respecté ka nga xam ne moom mooy làkk arab loolu mooy réalité ba nga xam ne moom moo fa nekk léegi bu fekkee ne réew mi nga xam ne tey bu ñu waxee ñu bari xamuñu histoire Palestine ak Israël dañuy xam rek ay jullit yu ñuy bundu xataal mais première question ki xamul histoire li muy posé mooy mais ana Arabie Saoudite lan lay def lan la ñuy xaar fu ñu nekk kañ la ñuy jóg mais ñi xam histoire danañu xam ne du ñu mos a jóg moo tax Sénégal li nga xam ne ñi ngi koy def buñ ci xeeb suñu bopp yeneen réew bu buñ ci xeeb suñu bopp ku toog di xaar Arabie Saoudite ngir mu jóg am benn taxawaay ci mbirum Palestine yaa ngi nax sa bopp ndax bu leeree ne Israël juif ñoo leen ngemb ñoo nekk seen ginnaaw ñoom ñuy woote wane ay juif la lañu donte am na juif yoo xam ne nii juif yu baax lañ ci biir juif yi ndax gis nañu États-Unis am na juif yoo xam ne ñu ngi marche wane dra yor drapeau Palestine di métit lu lii ñuy def ñooñu ay juif lu baax baax lañu mais dafa am bandi ci biir juif yi léegi nag ñeneen ngem bu nekk ci seen ginnaaw dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw naar yooyu noonu li li ñu am ci ay milliards li ñu am ci pétrole euh, aj gi li muy dugal ci milliards umra di ko dugal ci ay milliards jullit ñi moom ko tey loolu noonu bu buñ ko doyloo woon ñoom waxuma sax pétrole ba nu am mais mën nañoo am seen arme boo xam ne nii bu sophistiqué la ba kenn du leen yëpp ci àdduna bi mais jël ay milliards dénk ci banque dénkaane ko ci banque àdduna bi ñoo xam ne du ñuy jullit ay yéefar Londres ak États-Unis partout ñu nax la gëm gëmloo na naa attention ah Iran ngi nii ci sa wet ah, boo sëqatee léegi mu ñëw dal ci sa kaw léegi nag pour nga mucc ci lu mel noonu kaay ñu yoro sa sécurité at mu nekk nga jël ay milliards de dollars di ko jox ay noonu l'islam pour ñu yor sa sécurité te boo manqué woon ak sa benn mbokki jullit boo dendal da ngeen mën a liggéey loo xam ne benn noonu l'islam du la seen kaw ku tudd mooy li ma tudd borom kalpe bi léegi moom mooy addu kalpe bi loolu moo métti ci mbir yi. mooy kaay rey ma rek euh, sëñ Jibril xam naa dama lay libéré ndax euh, oustaz Sang Diallo lañu war a dalal euh, te moom it waxtu waa ngi dem te war nañoo ñëw tamit ci sàmm jikko yi waaw te sëñ Ahmed it dafa war a dem. donc su ma la yeewee damay damay damay damay damay bàyyiwaale si nga xam ne mu soññawaale euh, maa ngi jot message sañ Mor Dagg si la mu ngi nee na nañ soñu daayira yi su soutenir sañ sañ sëñ Ahmed ci liggéey bu solo boobu euh, ñu déglu sëñ Muntaxa sax wax na ci jàpp naa ne balaa ngay wax sañ Jibril euh, ci taxawaay bi ñu war a am ci suñu digganteeg Palestine ak war leen a jàppale nag ngir noo bokk ni ko Oustaz Imam Mohamed Makhtar Sarr waxee ci jullit yi kon ñu déglu ko ñu déglu discours Cheikh jëm ci lii sëriñ bi digle dellu ci suñu borom waxuma la sax réew yi arab waaye mën naa cee wax menn réew moo xam ne muy Filistin fa nga xam ne fa la masjidul aqsa nekk fa la nga xam ne fa la su su su su yonent bi foofu na rañaane woon jëm ci boromam foofee ay noona ko wër kapp aw ay ay néew joole dëkku fa noonu yooyu bëgg leen a génne foofu di leen buntu xasaal ci wet gu ne di rey di jàpp loo ko soob mu def ko ndax ëpp gëm leen ëpp la ëpp doole loolu kon lu néew néew doole lii jar na di ko def waxtu wu ne ngir ngir ngir liggéey lislaam la ci suñu kem kàttan ginnaaw moom ku gis loo xam ne gënut boo ko mënee faj da koy faj fa saasa bu ko mënut a faj nga wax la la ca naqari lépp bu mënut a wax nga am nga am naqaru xol mu wóor xóot ci yow ngir jëf jubban ji nga xam ne moom nga yëg moom nga gis kon lii sëriñ bi digle alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi nu amee kilifa goo xam ne waxtu wu ne mën nu jéem a delloo ci sëriñ sëriñ bi euh, sëñ sëñ bi discours bu daaw yaram la Euh, day mel ni manra amin ko mun karan dafay ñëwaat ci euh, li nga xam ne ni moom la daaneelee sëñ Jibril euh, lu triste la ni ko imam wax na point bu am solo sëñ Ahmed dajale ay milliards ci ay umra ay xaj am na solo waaye dénk ko sab noon itam moom mooy mooy mooy lor sa bopp te tey jaadu woon na waxuma sax méttit lu ko ci wax ak jëf waaye méttit lu ko ci wut ay ay ay ay ay ay ay ay jumtukaay yët leen ko sax jaadu na comme nii nga xam noonu la ko euh, président Turquie joxe defee euh, sëñ Jibril ban message nga ciy jàllale bala ñoo dalal euh, Oustaz Sanit Diallo moom mu ñëw ñu door a def nag deuxième partie bi su ko defee ñu yeewaale sëñ Ahmed ndax xam naa ne moom sonn na coono boo xam ne kéemaan lay doon sëñ sëñ bi am jërëjëf mhm. xam naa comme daanaka sëñ moom tëj na tëj na tëj na tëj na kàddu yi foofu daal lañ ci toll muy loo xamante ni metti na lool problème bi ñu am nag mooy ñoom lépp lu ñu def dañ koy planifier def say stratégie mooy ñoom bañ fa ne càpp ci 1948 planifié woon nañ ni 2028 moom dara du fa des danañu dana dugg seen loxo c'est-à-dire tubaab yi ñoom seen fonctionnement noonu la ñoom bu ñu tegee dañ ngay planifier ba ci seen média ba fi ne nii la lañ bëgg mu génn ci jëlal euh, CNN jëlal BBC jëlal daanaka boo seetee média yooyu yëpp sax ñoom ñoo ko yor moom ko lu leen neex moo ci jàll lu leen neex lañ ci yoon nun nag dañoo toog rek. nekk une société de consommation luñ ñu defal ñu jël dañuy bàyyi tout le temps bu coow li amee ñu jóg réagir mais du ñu anticiper ñoom nag ña ngay def ay conclave ña ngay réunir ña ngay xalaat feeg deux mille vingt nan la ñu war a def lan la ñu war a def si Jordanie lan lañu ñu war a def Hamas lañ lañu ñu war a def nangam ak nangam xam nañ ko planifier nañ ko teg ko nun nag dañuy bàyyi rek yëf yi di di di subir rek subir rek foofu nag la ñu war a jóge ci taxaw euh, ñëpp nekk benn. boole force yi boole mën a taxaw mën a jàmmaro mais li feeg loolu amut dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy gën di di subir dañuy gën di di souffrir yónnee naa daam léegi benn photo boo xamante ni mu la boo xamante ni 1939 lañ ko def Palestine moom ko daam bu fekkee mën nga ma ko woon rek booba Israël amagul <laughs> booba Israël amagul te ñoom ñu ngi woon ak seen mone euh, pièce boo xamante ni 1939 la Israël 48 la am waaw lii pièce bi waaju yor pièce Palestine la <laughs> kon ku mënoon a dem ba am sam réew am sa pièce am sa lépp te kii amagut kii ñëw <laughs> dugg ci sa tax 39 ak rek dafa yàgg kii daal di ñëw dugg ci sa biir moom di la ngooñ di la ngooñ ba far mu jël lépp man loola sama problème mooy seetaan mi daal. ak waaw metti na waaw te ëpp na daal. di sant ñëpp comme jotaay bi nag dafa xat te dañ cee war a waxtaane yi tamit lu jëm ci wàllu sàmm jikko yi mm-hmm. loolu yi tamit maa ngi ci remercier Ababacar Mbuub waaw ndax dafa am mbir moo xamante ni euh, fardu kifaaya la ki nga xamante ni nag moo ci nekk nekkal ñu si subaa ngoon di wër réew mi di defi pétition fenn fu nekk mu dugg fa lu ne mu jaral ko ko ñu di ko xas di ko ŋàññ di ko def lu ne te lam mu taxawee wax dëgg yàlla kilifa diine gu ne waroon na koo taxawee gannaaw nag moom moo leen nekkal ci loolu ndax ñoom kat xëy na seen jot ak wala seen ki yitte mayu leen loola kon ñoom it wax dëgg yàlla nañ soutenir Sëñ Babacar Mboup mm. ci te te di ko ñaanal di ko jàppale ci xeex bi muy xeex ndax kat saa su jukko yu yàqoo ni ko Sidi Lamine Niass daan waxee bu jukko yu yàqoo rek réew mi li yu bëri dana màbb kon nag nañ fexewaat delloowaat jik diine ji delloowaat ngor yi dana tax diine yi lislaam pour mu rafet ci jikko yu rafet rek la mën a tegu kon daal sëñ am ñu ngi lay sant bu baax di am mbégte nag euh, jataay bi ak oustaz oustaz Hassan Seck oustaz moo xam naa damay daal di bindu rek ko defee moom di jël ay cours à domicile bu baax a ñu ngi doon wut euh, jataay ak moom tey la ko suñu borom dogal waaye suñu suñu soppe la euh, suñ Naasiru Din moom dëgg yàlla moom ñun ak moom benn la waaw moom mooy daanaka moom mooy kilifa léeg-léeg sax bu ñu soxlaa dara si jëwriñ ci moom lañ koy jaar <laughs> kon nag loolu wax dëgg yàlla day lu day day lu sare waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ci taxawaay jërëjëf. bu baax yow itam ndax li ngoon biroom waaye bi ma ko waxee débat bi ba mu kale ko ci programme am dafa ma wax ne dinaa wàcc ñëw participer ci ndax loolu ñun ñëpp la war te tele bi jàpp naa démb bi ma sëñ Ahmed di di wax ne dañ dañ cee war a def jataay ñu ne ko doon nañ ko xalaat sax diiwaan waaye comme noonu la jàmpe te marché bi àjjuma la te moom mi ngi ci coordination bi nañ ko def suba ndax tele bi ki nga xam ne ni tey moom la ko yàlla jaarale ci moom muy alaaji Mbàkkiyu dàkku lu dul bëgg-bëgg sëriñ bi te sëriñ bi lu waaye mën a wax lu mu rëy rëy rëy rëy rëy l'islam ak yonent bi la doon défendre amuloon yitte ci lu dul ñaar yi te l'islam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ci loolu rek la nekkoon kon nag looloo tax mu mën a privilégier li nga xam mooy télévision bi ñu mën a sensibiliser nit ñi ci marché bi nit ñi ñëw xam nga Oustaz Assane dafa metti ci réew mu ñuy wax quatre-vingt-quinze pour cent musulmans chaque fois chaque fois ñuy baamtu baat boobu léegi actes yi maanaam dañoo war a poser ay actes act yi mooy lépp loo xam ne nii concerné lislaam laal nañ ko nañ xam ne sunu pas-pas la ñu laal dañuy jóg sunu jógee loola taalu ñuy pono lakkuñu ay oto defuñu leen waaye dañuy dox civilisé ñëw taxaw yëkkati ay kàddu borom xam-xam yi wax ñu wane nangam ji kat metti lu nañ ko donte nun amaguñu pétrole yoraguñu ay milliards yu nuy dem di dimbalee kenn waaye ñi fi nekk moom danañ xam ne image bi jullit yu am pas-pas a fa ne kon conduire nañu li nga xam parce que tey nii nuy jëf jullit yi bu doon tariixa boo mën a mekk bokk su doon kilifa googaa ngi fi moo koy jiite moo koy jiite parce que ñoom lii moo nekkoon seen objectif mooy julli di nekk ci tranquillité mën a dund ci jàmm di jaamu yàlla te duñ am benn jafe-jafe ñaaw na nga dugg ci jàkka màbb ko dóor fa ay bomb ñu doon jàmm yàlla doon te jeex na dee nañ ci ci deenu rafet waaye nag dafa ñaaw ci julli di dafa jot maa ngi dégg sëñ Thierno Mouride Sadikh borom na bokk ci jataay bi waaye li mu wax démb dafa am solo lii imaam wax la wax parce que tey bu fekkee ne ñoom bariwuñu ñu nag ñun toll waaye nun danoo bokkul nun na ngay lijjanti masala ma fukki dammee arab bi fële fii maxaarij bi fii euh, naxu bi fii ni mu ko loolu rek la ñuy lijjanti yooyu bokk na ci yi ñu tardeel mooy Oustaz Mouhamed Sarr mii ma nga dee TV gis na ne attaqué nañ Oustaz Assane mu xool Oustaz Assane lan lay lan lay lan lay posé ci lislaam mu taxaw ne Oustaz Assane mii hee bu leen ko laal su ëllëgee bu Oustaz Assane taxawee ci télé bi ne nangam ak nangam nit ñi naan nañ ko moytu ndax ñoom dañoo mobiliser wu def seen benn bloc te loolu mooy mooy sax waaye yaa ngi yàkkamte rek Imam Assane bu wax nga ne non juum na ci histoire bi de lii dafa kii ndax waroon a nangam yooyu moo ñu tardeel kon sëñ Ahmed ma dalal balaa may dalal sañu Sahid gan kàddu ngay ñëw jàpp naa ne lépp rek mooy rassembler ak sensibiliser. sant rek sant bu baax a a baax. Mhm. sunu borom yi ñu boole jotaay bi ndax démb rek def naa ci heure bi dañ ci doon waxtaan ma ak yow. Mhm. ba maa ngi jóge réewu Gambie. demoon ci suñu mbokku taalibe moo Diouf nga xam ne mi ngi initié foofu liggéey bu am solo muy takaaful assurance muy assurance islamique. Euh, te ñaan yàlla yu mel noonu aussi am suñu réew yi. ndax assurance boo xam ne boo assuré baat mi jeex boo deful accident ñu remboursé la 50 pour cent ci la nga assuré woon. Mhm. publicité la waaye gratuite la. <laughs> waaye assurance boo xam ne man am na solo depuis 22 ans maa ngi fay te kenn mësuma delloo delloo ristourne te boo accident de sax duñu defar solo. waaw kon nuyu ko bu baax a baax nuyu Cheikh Moussa Mbacke ibnu Cheikh Moutala mi àndaloon. waaye sant suñu am aussi ci teem. ndax démb ci heure bi laa ko woo. mu ne ma koo xalaatoon ma ne ko ku mel ni imaam Assane bu ci teewee dina am solo. mu ne ma maa ngi xalaat maa ngi woo maa ngi woo sëñ Jibril ni ma sëñ Jibril it am na ko ma proposé na ci teew moom bi fekk fi sama soppi bi ma kontaan ci loolu. loolu benn point beneen point bi ma ci ah, Mor wax na ma ko léegi mooy nañu fàttali heure bi mooy ajjuma ginnaaw julli jumaa rek. waaw man sax waa Thiès yi dama leen midi. Mhm. nañ dajaloo ci sama buntu kër. Mhm. ci buntu daara ja mhm. kaar yi ñëw mu wutale ni sànni si wutale ndox bu ñëwee ci yoon wi ku nekk defee fi ñangeen ñu julee Masalik dox dem bàyyi oto yëpp Masalik waaw parce que Masalik fi ñuy defee fi a jaral c'est important mooy ñu jógee faree nañ ko defee noonu rek mooy bu kenn xaar añ fa nga dëkk parce que ku añee géej waaye bëgg a ñëw obélis da nga tardé na ñëpp jàpp ni moom ku mënta julee Masalik na nga xool jumaa jege Masalik wala jumaa jege obélis nga julee fa ba ñëpp xam ne Sénégal yëngu na. Euh, monsieur le mbir mi du mbirum parti du mbirum organisation du mbirum ab ONG. Mhm. mbiri jullit du kenn ku ne boo ñëw loo mën a symboliser mandarga lislaam mhm. muy kaala gu weex wala kaala gu verte na ko indi. Mhm. Euh, du affaire amul propagande bu kenn tudd sa sa organe bi nga jógee. bu fa kenn tudd parti bi nga jógee bu fa kenn tudd ONG bi nga jógee mbir mi mbiru engagement la. waaw na ko suñu mbokk yi nekk euh, Iran defee suñu mbokk yi nekk Turquie defee suñu mbokk yi nekk yu mel ni aussi ma damay ñaan suñu koy defati ñu bañ koo ñu bañ cee tudd sa nit politique yi parce que fu ne boo tuddee Arabie Saoudite rek euh, kuréelu islam yi aju ci Arabie Saoudite dañu ragal ñoom ba ndax dañ naan ñuy xeex Arabie Saoudite ñu organisé donc man maa ngi di dox loolu nasiha diini yi la bu ñu def yu mel ni nañ mel ne rek jullit yee daje ndax boo xasee tudd ni Arabie Saoudite lii fu ne am na ci ñu ne ci réew mi te si lépp Arabie Saoudite xëy dafa gonto te dina ragal ñëw jotaay bi ndax dañu bu ñu ci demee Ahmed dana fa xam ne naa ko wutal mille litres mille bouteilles mhm. ndox ak mille sànni mhm. jox jox ko addi mhm. a yëg ni am na ñëw léegi daa woo Talla mu ne lu ngeen ci xalaat ma ne ko ah, man ne bu ma kenn jàppalewut dinaa jëlee Thiès juróomi kaar wala ñeenti kaar fayal leen dugg leen ci oto te kenn ko ne da nga yorub sànni si ak bitu ndox mhm. te li ma fas yéene mooy sànni si yooyu ñëpp di añ ci añ jul dugg masaar julli dox ak sama tànk bu ñu bërëb ba mhm. parce que mbir mi il faut kenn ku ne yëg ni li Sëriñ Mountakha wax lii xam nga Sëriñ Mountakha bi mu wax lii lii xewagul dëgg la bi mu wax lii su ma juumu sax boobu nekk mu xam ne kilifaam la euh, euh, <laughs> moo ko waral mhm. waaw mais donc mbir mi responsabilité la engagement la shoor la fu ne bu ma fi nekkoon léegi léegi naan président bi def na nii président bi ni mu waxee dafa oyof mm. jàpp ne ñooñu seen rôle la ñuy def ñu suñu rôle la ñuy def mm-hmm. bi ñuy mooy li si mën li si mën taxaw léegi mm-hmm. mooy man raa min ko mën karan mm-hmm. ku gis loo naqari wala loo loo neexul te muy jam lislaam soppi ko ci sa doole wala sa làmmiñ wala sa la mais bu ñu ni diw def na diw deful wala diw def oyof na loolu nag sama engagement personnel la ak sama gis-gis personnel dëgg la ndax ni àddinay doxe ni àddinay doxee xasaas yi àddina dafa bëri xasaasaat yi dafa bëri lool te am na noo xam ne boo ne waxee rek am na koo xañ ab doxinam donc loolu moom ñu ngi ci sant baax waaye nag di santaat yàlla bu baax a baax a baax mm-hmm. ci la ma tàmbaloon la lay yeesalaat mm-hmm. ci télé bi ñu am mm-hmm. muy télé boo xam ne maanaam miin ba xur la maanaam euh, espace bu libre la Imam Mokhtar bu ñëwee li mu santi lay wax man su ma ñëwee li ma santi lay wax te kenn du yëg ne da ngaa conditionné kenn du yëg ne damaa wax damaa jox am deux cent mille donc nu ma neex laay waxee eh, donc fii moom mhm. xam nga début bi wax moom xaw moo sa tey la dama ne ko daal nañ xool benn date fii àjjuma ñu soñ jullit yi pour ñu ma yëg ne am na lu xew àjjuma la fu ne eh, su ma juumul amul beneen télé bu defagum lii. dëgg la dëgg la. ndaje bu àjjuma bi ay ay personnes mhm. morale ak ay responsable moral ñoo ñoo koy sànni seen Facebook ak seen seen seen WhatsApp. Mhm. mais télé bi ñoo ko ñëkk initié donc yàlla na yàlla def lépp ndamul sax alhamdulilah ba ca dafa def jëf ju rëy mhm. karo wax na ko ca ndogu la dinoo defal ambassadeur yi dafa jël terrain xam nga Palestine moom moomaguñu seen bopp sax waaye ñoom na sër nañu ni lañ jot a moomandi may nañ fa suuf seen Tuubaa ci biir Palestine wax na ko mhm. waaw ni nag suuf soosu nag maanaam suñ muntaxaa wala ki fi nekk suñ tubaab bu ko neexee def ko école mhm. bu ko neexee def ko daara bu ko neexee def dalukaayu murid yi mhm. loolu na c'est asali ndax ki moomagul suufam ni ni moom fi moom mandi may naa la ci lii kooku heure bu moomee suuf su la fa am dëgg la wallaay wallaay wallaay <laughs> te dëgg daawit mufti xut si ñëw na fi mufti xut si mufti diyaarul muqaddasa ñëw na fi daaw dem Touba dem Tivaouane dem Ndiassane dem Kaolack waaye lu tax mu def loolu. Mhm. mooy dafa yëg ni jullitu Sénégal ñu ngi leen di jàppale. Mhm. dafa yëg ni aussi Sénégal am nañ position bu spéciale ci xadira palestinien. Mhm. góor gi su ma jubul am na juróom ñaar fukki at yu tegal. maa ñun bi ñuy fekk si Muntaxa 40 kilomètres de Touba da nga xam ci fa lañ fekk mais boobu man bi bi mufti bi wàcc ci oto bi sax. maa ngi ko ñeewante ndax âge bi. tiib at tiib. loolu beneen dëkk la 40 kilomètres ko rek gën a Mbàkke doone ma fu suñ <laughs> waaw waaw mu ne fu suñ bi nekk rek naa ko fekk mhm. waaye bi mu ñëwee fekk si mu taxaa ci ay néegu seng mhm. ak oyofaay bi mhm. ak ak yéeg gi ak oyof gi dani ma kii su ma gisoon te du ma du ma nelaw suñ <laughs> mu taxaa bi mu gisee dafa fóon bi moo lay wane lu baax lépp bokk xeeñ xeeñtu dëgg la dëgg la waaye nag boo dama daanee sama kàddu ma beral ak cant waaw du ma tàyyi di ko wax sama cant ak sama ngërëm ak sama ñaan ci Cheikh Mountakha Mbacké ndax ku ne bëgg nga kilifa waaye kilifa gu baax lewet oyof yëg njaboot yombul te lu ma xewle mu jël taawam yónnee lu ma xewle mu jël alam loolu dama naa ko ne sëñ man sëñ sëñ sëñ ko so mité wala sëñ abu ëpp na ci man rawatina nga jël alal di ci def <laughs> euh, ñetti at ci ginnaaw mu def lu rëy ci man mhm. parce que nag suñ murtada mi ma yar dafa mën a wax ni mm-hmm. waa maa bi nee ma tera bi ka fa xaddis mm-hmm. euh, maanaam waxtaane xéewalu yàlla yi mm-hmm. suñ borom da koo digle dëgg la ñett ñettaat dañoo màggal ba ci suba ga suñ muxtaar ma ànd ak gani étranger yi comme ni ko mbokk mi juñee sànq di ñibbi si Dakar di leen yóbbu pour fi seen dal ñu kenn ko ne ñëw war a ñëw xaar sa vol njabootu sëñ bi woo ma xam nga ba ci suba ga ak xalif général des mourides njabootam woo ma ni ma sëñ bi nee na bu fekkee ne sori woo nga ñëw wuy man sax boobu jikko ña ngeen dal dama boo defoon maa def dara <laughs> xam nga ko daara bu ñu ko waxee ba da tiit. waaw ma ne ko ma ne maa ngi nii ci autoroute bi dem. Mm-hmm. ànd ak gan ñi xanaa su ma àggee Dakar ba leen seen mm-hmm. mu ne ma mu ne ma may ma tuuti waaw tuuti ma sëñ bi nee na kon nga bàyyi ba sa tànk oyof. Mm-hmm. ma bàyyi ba gan ñëpp jël seen vol ba ñibbi. ma ñëw mu ne kañ la rek ak bàkk la. ak neexal la daa doon doyee. la ilaha illallah. sëñ wax la loolu. ci veyu màggal. dëgg la. te ni ma koy defee noonu la koy defee ci isbu tarxiya mhm. noonu la koy defee mu xadimatul xidma noonu la koy defee ci mbàkk yu fay noonu la koy defee ci ñëpp dëgg la mooy yëg na njaboot mhm. fonk na njaboot waaye day wéttal na njaboot dëgg la dëgg la kon na ko ñëpp dañoo war a maase ñaanal ko jërëjëf dëgg la te gis na fi xew bu yàggul mhm. bu dul woon kàddoom ak yitteem réew mi daak dana am dana métti lool dëgg la ba ma sey na ay laaj maa <laughs> dëgg kàddu la ci boole ak yitte dëgg la ak doxinu sell ba am safaafee ba am transparence dëgg la waaw kon nag nañ ko ñaanal ñaanal kilifa yëpp waaye nag beral ko ñaan ndeysaan kon daal ñu ngi sant bu baax si Massar. jë jërëjëf ndeysaan moom daal ni nga ni nga ma doon. jërëjëf si écran yi noonu laa doon suivre yow itam. wallaay wallaay léeg-léeg sax nga àtte ma ne ah waaye pourtant li diis na waaye dëgg la de. <laughs> tabarkàlla jërëjëf sëñ Ahmed ñu gërëm ko baax a baax eh, ci eh, woyef gi ak yitte ji mu def ba jóge Thiès ñëw jóge Banjul waaye lislaam mm. moo ni toll tax mu jaral ko ko barki démb am na ko ma dajal mu ne ma damay gërëm sëñ Ahmad Saalum ma ne ko tax mu ne ma ndax ci concours alxuraanam laa njëkk a téye micro jàng alxuraan loolu kooku bu demee tey ba nekk leader di wax loolu nga xam ne kon investir nga ci ñoom ci jeunesse bi mm, mm. te lu am solo la ndax mm. amoo benn intérêt ambassadeur Palestine bi nekk fii ambassade bi sénégalais yi ñoo mën dajale dem dimbali ko waaye moom amut lu muy dimbali nit ñi waaye dafa am lu ñu bokk lu gën a foor balaa ngay doon génn tariixa mbaa ngay bokk ci génn kilifa jullit mooy fondement bi xam ne mooy taxawal bâtiment boobu mm, mm, mm. Euh, kon nag euh, ñu ngi lay sant bu baax bi nga ñu mayee privilège wu rappelé ni ne nangam war nañ ko def sax ñu def ko loolu ndax ñaari émission yi waroon am sëñ Xaadim Njaay tasawuf waroon waroon koo def dañ ko mujj annulé ak talaata ji talaata yi maam Cheikh Rahima Fall te dara wóorul ko lu dul émission bi euh, moo waral ñu def ko kon noo ngi lay sant baax di la gërëm ak jàpp gi ngay jàpp itam alaaji Mbàkkiyu mm. ak taxawaay bi nga am ci ci yoonu murit mm. ndax bu màggal Touba xasee jot gis nañ ne de Dakar ba Touba ba ñëwaat Dakar doo am benn temps lu dul du nga ay gan jëli ay gan yóbbu dalal leen te loolu euh, euh, la xadis ba waxoon rek teral gan dafa bokk ci dafa bokk ci civilisation lislaam waaye dafa bokk ci civilisation hmm. yoonu murid fal yu crime day fa euh, kon jërëjëf euh, Nasir Diine ñu di ko sant baax di ko gërëm sëñ euh, balaa ñuy dara Oustaz Imam Saïd Diallo ñu ñëwoon a ñëw ci deuxième partie bi ñu mën a li yeewi sëñ Ahmed dama lay bàyyi rek ban kàddu ngay mujj résumé maa ngi insister nag ci le 23 bi muy àjjuma ji ni ko imam waxee ni ko sëñ Ahmed waxee le 21 21 23 bi mooy mooy mooy ajjuma rek waxal ajjuma rek ñaar yi <laughs> ñaari day benn thème bu bokk boo xam ne ni dafa dafa dafa dafa dafa dafa duggoon na dide wala ajjuma rek kon vingt ans ajjuma ji daal euh, ku julli da nga jullee ci li wër li nga xam ne nii mooy kolobaan du ko euh, jege rek mooy mooy mooy kolobaan bi ñun ñëpp danañ fa ñëw teew si incha allah parce que euh, dafa noonu bokk loo xam ne nii ñun ñëpp ñoo ko war a bokk di defendre muy lislaam hmm. kon na ñëpp ñëw sol yëre yu weex ñoo xam ne julli di ñoom ci jàmm al islaamu ci la ñuy dox hmm. kon su ko defee ñëpp ñëw daje ñu boo ko mettitlu sunu mbokk yee ca Palestine néewal gi ñu leen di néewal doole ak nangu gi ñu nangu seeni dëkkuwaay ak rey gi ñu nga xam ne ñu ngi ko dëkkee ñoom te munta dakk mukk ñun ñëpp ñu bokk ko ñaawlu lu ko euh, ngir euh, danoo bokk lu ñu munta seddoo imaam Assane ma bàyyi la bala nga daaneel su ko defee ñu mën a euh, dugal imaam Saïd Diallo tabaarakallah mm-hmm. wax mm-hmm. xëy na nekkut réew bu rëy ba àgg ci dayoo yenn réew yi waaye nag yàlla ko hmm. beral cër beral ko ak ràññeeku hmm. eh, lépp luy am ci adduna bi lépp luy am ci réewu jullit ñi mm-hmm. jagle googu nag mm-hmm. bokk na fi muy feeñee taxaw bu baax a baax mm-hmm. moo ci moo xam ci côté gouvernement bi la walla ci côté peuple bi la walla ci côté association islamique ràññeeku ci taxawu réew boobu di réewu Palestine kon nag ni ko oustaz Ahmad Saloum Dieng waxee mhm. ñu ngi dëgmal bis boo xam ne mhm. di dëgmal daje boo xam ne mhm. ciru senegal ci côté diine ciru Sénégal ci taxawu lépp luy dëgg cëru Sénégal ci défendre képp ku ñu tooñ cëru Sénégal bi ñu ko xamee ONU muy Nations Unies xamee ko ko ci réewi arabe mhm. xamee ko ci adduna bi mhm. ci taxaw la cause mhm. palestinienne euh, laat ko laat ko euh, jot na bu baax a baax a baax a baax a baax ndeysaan ndeysaan kon nag yàlla nekk na woon fa woon rek yàlla def ci lu raw liñ ciy yaakaar te gis nga bu ñu naago de Israël mën na daanu de Israël mën na daanu gis nga statistiques yi wane na ne actuellement. cinquante neuf pour cent. des européens. nangu nañ ne la la première menace. de la paix mondiale Israël la. te gis nga yii muy def nii. mooy yokk noonoo. di ko adduna bi di gën a noonoo. te loo gis nga gis nga xoolal ma xoolal ma ancien euh, président Amérique bi daanu temps yi rek mhm. ni mu suutara ni mu soutenir woon Israël mhm. bokk na ci li ko waa réewam bañee mhm. ba wékk ko fulkan ca biti day àgg foo xam ne itam yàlla fi muy jaarale li xeex Israël moo ko xam te waxoon na ci alquran ne wa iz taazana rabbuka mhm. la yabaasanna alayhim ila yawmi alqiyama man yasumum su al adab ndeysaan waxu yàlla googu du dañ de dëgg la jamono ju nekk yàlla xam na hmm. na muy do na muy yónnee ci ñoom hmm. ku leen di duma dëgg la buxtu nasar defoon na ko hmm. leer defoon na ko ñi ngi créer condition yoo xam ne yàlla na ci duma googu juddoowaat ameewaat te Sénégal nag bokk ci ñi nga xam ne hmm. ñooy bijj loolu dëgg-dëgg jàmm lañu bëgg dal lañu bëgg waaye tooñ am na foo xam ne bu fa àggee itam am nañ di waaxu hmm. xeex ko gi yaakaar naa ne jéggi na day dëgg la jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Assane euh, Oustaz Assane ñu gërëm ko baax moom xam naa incha allah danañ nësër bokk moom jotaay jotaay yu bare bare bare bari ndax euh, lu am solo la kon ñu ngi koy gërëm sëñ daam ñu yeewi sëñ Ahmad ak Oustaz Assane rek Euh, su ko defee ñu ànd ak euh, imam Makhtar Sarr ak euh, sëriñ Oustaz Saïd Diallo ci li nga xam ne ni mooy ànd sàmm jikko yi ñu dem résidel si waat قد سلسوا بجلالهم من لم يكن jërëjëf waarees yi jërëjëf sëñ daam sëñ Abdou Diouf sëñ Pape Cheikh Bey lañ jàkkaarlool ci euh, régie bi ak euh, sëñ Mansour Guèye ci caméra bi ñoom lañ jàkkaarlool kon ñu gërëm baax sëñ Ahmed Saloum Dieng ak ki nga xam ne mooy sëñ Oustaz Assane euh, sëñ Makhtar ñoo ngi lay nuyu xam naa damay bàyyi Oustaz Sane mu nuyoo su nuyoo bu nopp nag ñu dugg ci waxtaan wi imaam ñoo ngi lay nuyu di am mbégte baax ci seen teewaay ci plateau bi ginnaaw li nga xam moom la ñu bëgg a waxtaanee ma bàyyi la nuyoo ak téléspectateurs yi. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala muhammadin min nachli hachimin fa naqluhu min tahirina wa tahirat hatantaha litahirina wa tahirat wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, noonu la ñuy nuyoo téléspectateur Touba TV yëpp jël nuyoo bi di ko teg ci jëwrin di ñaan allah subhanahu wa taala muy mottalil ko naal wi nga xam ne suñu borom eh, sas na ko ko te sëñ Muntaxa daal di nekk koo xam ne maanaam dafa yaxal lépp di walbatiku di la fay nuyoo nuyoo goo xam ne dafa méngóog ak eh, nuyoo gi nga xam ne moom nga ñu jox muy jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla defal la ko defal ko sa njaboot defal ko képp kon ashwaax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullah eh, lañ koy tasaare di ko jox sunu xarit sunu sëriñ sunu wëllëre oustaz Makhtar Sarr nga xam ne ñoo bokk eh, lii di guerre bi mm-hmm. te guerre bi ñuy guerre dafa wuuteeg guerre yi nga xam ne moom la ñuy wax ndax guerre bi nga xam ne dañuy fexe ba doomu aadama mu am xurriya mm-hmm. am liberté gëm li muy gëm comme ni ñu ko lislaam waxee laa ikra diin kenn ku ne am nga droit tànn diine ju la neex bu la neexee nga ne man tànn ma jënn diine joo xam ne yàlla wàccee na ci téere nga tànn jeneen diine boo xam ne mooy bakkan kon nit mënut te ñàkk diine noonee la ñuy fexe itam kenn koo xam ne xas nga ba wax ne da nga bokk ci diine ji nga fexe ba respecté churuut yi nga xam ne mooy tax nga sàmm léegi nag bu fekkee ne respecté woo ko dañ lay jàjj dañ lay fàttali dañ lay soññ mu doon loo xamante ne bi moom la ñuy ubbee li nga xam ne moom mooy jotaay bi di rafetlu itam taxawaay bu am solo bi nga xam ne mbokk yi nga xam ne wuutu nañ leen fi bi ñu am ci Palestine walbatiku di nuyu ki nga xam ne mooy son excellence ambassadeur euh, Safwat di ko wax ne Sénégal musul des ginnaaw ci liggéey bi ba suñu jon yàlla tey li nga xam ne mooy droit inaliénable du peuple palestinien Sénégal mooy ki nga xam ne moom moo ko jiite. Mhm. kon nous sommes avec vous. Mhm. te incha allah rabbi sanakun maakum mahma a zurukum incha allah incha allah mhm. taala. jërëjëf Oustaz euh, Sahid euh, ci nuyoo yu am solo yooyu euh, ñu nuyu Serigne Babacar Mboup ginnaaw bu ñu ko nuyoo ñu gërëm ko. man su ma doon nommé le 4 avril. ci euh, légion d'honneur yi jox gaa yi mhm. danaa ko ci jox wàllam ndax taxawaay bi ni mu ko liggéeyee ànd ko yéen mhm. ndax bi mu ne bëreet dafa xam ne lu ñëpp bokk la mu dajale mboolem ñi yëngu ci kii këri diine yëpp te nekk ci ay télévision wala ñu nekk ci ay rajo wala sax nekkuñ ci loolu ay borom xam-xam lañ mu dajale leen ànd ak ñoom di leen wax xalaatam mhm. beneen bi ci topp mooy muy képp kuy xale généraux te nekk ci réew mi teg na tànkam sa kër nga defal ko ab cachet bind woon ko ne ko ñun ak yow noo ngi ànd ak yow ci xeex yi jël représentant teg fa loolu benn fee bu mu def euh, li muy def nag du intérêt temps yële sax gis naa nit ñi jël photom dugal ko di wax ne nañ dugal dara ci kontam euh, nañ def ma ne leen loolu lépp am na solo waaye nañ ko taxaw parce que li muy def ñun ñëpp suñu intérêt la ndax euh, Oustaz Makhtar dafay mel ni lu liñ doon waxtaane léegi ci ay lobbying ci ay réew yuy néewal doole mhm. yamul rek ci diggante Palestine waaye dafa egsi ba ci civilisation bi l'islam am nga xam ne moom rek moo ko am àddina wërngal képp mhm. ci contre acte contre nature yiy am lislaam taxaw di ko defendre di teg ci ay responsabilité mhm. loolu dafa mel ni am na ñu am doole ñoo xam dañoo taxaw ngir jële ko fi ba tax ñu jële ay code indi ay ay ay ay loi voté ko ngir fas yéene ñi nga xam ne dañoo dox jëm ci jikko yooyu di yàqu ñu protéger leen mm-hmm. ba nga xam ne dañuy am doole joo xam ne ku leen laal yoon dal sa kaw te ñu bokk nañ ci booy xeex crime booy xeex crime ndax tey bu ñuy wax viole kirim la tey am na ñoo xam ne ni bu bu bu ko nit defee coow dana bari lool ci réew mi mm-hmm. tey ñi ngi yàkkamti ab sëñ daara bu ko buñ ko tuumaal rek bañ gaaw publier ko yaatal ko te terewul ñu ngi daganal nag ñaari góor yoo xam ni war nañoo mën a ànd sëy mhm. bëgg a daganal ñaari jigéen itam na ci ci ci ci ci ci domaine bu mel noonu mhm. loolu mu nekk loo xam ne ni jàpp naa ne buñ ko bàyyee mhm. du ñun waaye sunu njaboot gi ñëw à l'avenir parce que tey ñun sunuy waajur liggéeyal nañu sunuy maam liggéey waaye nun nag noo mujjee poussé bi ndax dafa war a réer wala dañ ko war a fomp ba mu set yeesalaat ko jox ko sunu njaboot ñu teeku lan moo waral ànd saa mu jëm jikko yi ci yan but ngeen di dox Euh, bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye balaa boobu ñu ñëw ci li nga xam ne ni mooy cause bi waral ànd sàmm jikko yi. waaw jërëjëf ñu ngi lay <clears throat> jaajëfalaat bu baax. Mm-hmm. Euh, macha allah ci ni nga jiite émission bi. Mm-hmm. Euh, rafet na sëñ Hamidou jërëjëf mm-hmm. Diop. waaye di nuyu sunu naataango sunu àndandoo ci liggéey bi ci wàllu yàlla. ak ci wàllu ànd sàmm jikko yi. muy Oustaz jàlloo Diallo tabaarakallaahu nekk jàmbaar. nekk ko am taxawaay nekk ko disponible ci liggéey bi macha allah yal na ko yàlla fay yiw waaye di ma baal tuuti rek ma def ak fàttali. Mhm. di ñaanalaat bu baax a baax sëriñ Babacar Mboum ni nga ko waxee. Mhm. yàlla dëgëral ko te wéeral ko. Mhm. ndax li indi ànd sàmm jikko yi. maa ngi koy wax léegi ci euh, palaato bi ma jógee. dafa am jëmmi jamono dañuy toog rek ñu déclaré nu ne dafa am benn site internet bu nu ubbi. Mhm. historique bi dana dimbale ñu bari ñu dab ànd sàmm jikko yi nga xam ne tey lañ ko dégg. Hmm. Euh, biñ ma wooyee ku tudd am di Moustapha boobu maa ngi nekk Seneweb ba léegi sax maa nga fa. Mhm. moo nekkoon technicien bi. Mhm. yu mel noonu yu ci bari dañ ci daan waxtaan ma ci wan yu bari. ma ne ko ñun ustaas yu bari dañu ko xam. yéen techniciens yi nag fi jamono toll. ak mbon gi songu Sénégal lu ci bari yéen a koy njëkk a yëg mhm. rawatina ci internet bi ngeen nekk ma xëy benn suba teel ay dix heures mu woo ma téléphone wala mu yónnee ma message ci mhm. euh, Facebook bi mhm. ne ma yéen de wala yow de yaa ngi def aaxiru zaman mais nag yaa ngi soog di am loo aaxiru zaman lien boobu ma la yónnee duggal nga xool ko ma dugg ci lien bi bi ma tàppee gis mboolem lu doon vidéo scandale yu xew tey nii ñu koy dugal ci réseau sociaux yi mhm. nit ka futteeku na def na naka su dul noonu mhm. site boobu la première fois ci histoire u Sénégal ñu gis site boo xam ne nii yu ñàkk teggin yooyu noonu la ma nga ca mhm. te ay sénégalais yoo xam ne sénégalais lañu ak i sénégalaise nekk ca biir ma ne ko mais lii fu mu xewee mu ne ma senegal site bi sax dèjà tur wi ni mu tàmbalee mooy wane ne Sénégal la xewee ma ne man moom dugg naa ci mais yàgguma ci. mënuma continuer di ko seetaan gis naa daal quelques quelques vidéos. ki ma njëkk a di téléphone woo ko mooy Serigne Babacar Mbow. ne ko am na lien xam naa na nga jéggal ma mais xool ko mënul ñàkk. bi ma noppee ci moom ma wax ko Adama Mbow. defe naa moom jotuma ko woon yónnee lien bi dama ko expliqué. Mhm. woo ma Makhtar Gueye bu Jamra. Mhm. woo yeneen ñeneen ñu ma xam ñu nekk ci waar bi mhm. pour ne leen lii moom warees na ci am taxawaay ndax nag mhm. Sénégal bu demee ba nga xam ne tey site internet mhm. amatul kot amatul dara connexion ngay am dugg ci site internet di gis vidéo yi gën a ñàkk teggin ay sénégalais di ko def loolu noonu la warees na ci am taxawaay ci lañ dajaloo réunion ci jàkk imam aadama Seck bi nekk fële ca parcelle sunu première réunion Euh, bi ñu réunion keroog muy sëñ Babacar Mbuub sëñ Adama Mbuub ba ci avocat ku tudd euh, euh, kii Mbeng mhm. Amadou Mbeng mi ñu nekkaloon démb mu nga mhm. fa woon maam Faatu Mbeng mhm. ñoom maam Maxtaar Gueye Jamra ñoom imam aadama Seck ñun ñëpp ci réunion ba keroog ba ci Abdou Karim Gueye nitu dëgg ñun ñëpp ñu nga fa woon ñu ne lan lañ war a def ci tënk bi ñu dëppoo ci stratégie yi ñu war a teg première jéego bi mooy jug dem seeti kilifa yi gaa mënuñ leen a wax li xew mais mën nañ leen a junj mbon ngi dugg Sénégal ba lañ daan nëbb yu ñàkk teggin tey ñu fesal ko ci ay site internet ci la wax ne nan la ñuy tudd baatu am da sàmm jikko yi mi ngi jugee ci làmmiñu imam aadama Seck bu nekk parcelle mhm. boobu mu ngi wax ne nañu ko tuddee alliance sàmm jikko yi ñun ñu ne ñu ne baat boobu baax na mm-hmm. alliance sàmm jikko yi mm-hmm. ci la ñuy dox ba mujj lettre yi njëkk a bind ci ànd sàmm jikko yi loolu moo ci nekkoon mm-hmm. alliance sàmm jikko yi ñu bind lettre ministre intérieur euh, bind plainte dépo déposé ko ci taabal le procureur mais laataa loolu noonu la def nañu tournée jamono yooyu noonu la Serigne Sidi Muxtaar moom moo nekkoon xalifa ñu dem Touba dem nañu Tiwaawan dem nañ ci kër yi diine yi ñu war a dem ndax ànd sàmm jikko yi ñu fàttali Euh, allié première mooy nitu diine yi amul benn combat buñ mos di yëkkati bañ ko door rek fii mu toll nii di dem ci média di wax lu dul ne dagg nañ sunu paas dem seeti kilifa yi ba noppi ci noonu ci tënk ñu dem ñëw def sunu pelent def jéego yu bari yuñ ci def euh, yitte yu bari la ci biir yitte yooyu ñu doon dox mujj gi ci lañ ne alliance daal tur mën nga ko wax nit mën na ko bañ a xam nañ ko mujj tuddee rek ànd sàmm jikko yi mhm. ndax baat la bu simple boo xam ne bu ñëpp di xam la mhm. jamono yi man maay coordonné liggéey bi mhm. ndax bi ñu dajaloo noonu ñu ne ma gannaaw yow yaa signalé lu mel nii liggéey bi coordonné ko mais nag euh, boobu kuréel yu bari ñu ngi jiitu woon lu mel ne Adama Mbuub kuréel bi mu jiitu woon ci wàllu euh, défense valeurs yi ñoom Abdou Karim Gueye ak ñoom Adama kuréel bi ñu taxawaloon ngir bañ ak ngóor jigéen sëñ Babacar Mbuub am na kuréel yi mu nekkoon kuréel yooyu yëpp Jamra boobu ci ay juróom-ñett kuréel ak yu mel noonu lañu ñu toll. Mhm. ñu tudd ànd sàmm jikko yi. Mhm. tey mu ngi yokk ba yegg na alhamdulilah lu ma juróom fukki kuréel fi mu toll nii. Mhm. ci la ñu def ay jéego ba mbirum franc yi jaar fi. boobu yëpp ñu ngi tudd ànd sàmm jikko yi. bi ñu nekkee def jéego yooyu noonu la porte plainte ingénieurs yi fu ne ñu jaar fa. ci mbir yooyu noonu la. mais gouvernement bi ne tekk daanaka mel ni def cee tële. dem na ba ay nitu victime ñoo seet si waa ànd sàmm jikko yi ñoo xam ne seeni vidéo lañ doon jël di ko dugal ci site internet yooyu noonu la mhm. mais nag mënul war a nekk lu ñuy wax ci kaw mhm. dañu woon li ñuy dox nañ ko dox ci suuf mhm. porte plainte dem gis ay nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci ci diggante boobu ñu nekkee ci loolu mu jël benn temps am na yeneen yu fi jaaraat toog nañ rek dégg fi jenn waay jarul may tudd turam ne jël na ay jigéen futti leen bañ set mu foto leen mhm. diw leen ban mhm. exposé leen fii ci Ndakaaru te mhm. laaj nañ ko mu ne lu mel noonu li tax mu koy def am na jigéen ñoo xam ne lu tax ñu koy nangu mooy bu ay événement di jege si lu mel ne Korité ak Tabaski du ñu am xaalis fukki junne la leen di fay ñu nangoo futteeku mu foto leen exposé leen noonu loolu tamit jóg nañ ci image yi ba léegi souvenir bi ñu mujj am ci euh, Serigne Sidi Muxtaar bi ñu demee Touba man sëñ Babacar Mbuub imaam Diop fajaa Adama Mbuub defe naa ñun ñoo ñoo àndoon ci délégation bi dem yeggee ko lu mel noonu euh, bi ñu ñëwee ñu taxaw ci ba moom ci boppam yàlla dogal mu dajee débat moom mi doon def lu mel noonu daje débat ak Adama Mbuub fii ci euh, télé bi nga xam ne nii fi laa nekk dafa liggéeyee ba yàlla mujj na ci def sutura keroog la gëj a def loolu noonu lay ba fii mu toll ba bàyyi ko nga xam ne année bu nekk dafa programme noonu di ko def waaye ànd sàmm jikko ñoo taxaw ba loolu noonu la dañ mm-hmm. am na fi yeneen artistes yoo xam ne xëy nañ fii mm-hmm. génne ay clip clip yoo xam ne filmé woon nañ ko ba ko doon bëgg a tasaare yàlla dogal ñu ñaam ci ay extrait fañ ko doon euh, filme di ko di ko tourné mm-hmm. ànd sàmm jikko yi waxuñu dañoo euh, yëkkati téléphone fexe ba am téléphone artiste bi ñu woo ko wax ak moom euh, mu nangu pour retire li nga xam ne moo jëm ci wàllu clip ba te lu mu naroon a génne la loolu luñ liggéey la ci liggéey yi nga xam ne ni nekk na ci suuf mhm. bi yooyu yëpp weesoo nag euh, am na benn rapport tamit mën naa ko tudd dib dund mhm. moom it def na fi benn clip boo xam ne clip bu ñaaw la ci jamono yooyu futti jigéen mhm. solal ko col gu bon def ko ci clipam moom it ànd sàmm jikko yi jóg nañ ci taxaw ba mu bind retiré mboolem télé yi euh, yóbbu woon seede ba ñu koy teg mu wax ne télé yooyu yëpp nañ ko retiré buñ ko tegee boobu dañu naroon bu ko bàyyiwul ànd sàmm jikko yi day dem ak moom ci wàllu yoon bi ñu nekkee ci loolu noonu yëpp nag ba jëmmi jamono lañ toog rek ñu ne kat franc-maçon wu àdduna bi Sénégal la ñu def mu nekk nar a def mu nekk seen capital muy Dakar muy refam bi fi bëggoon am ànd sàmm jikko yi dajaloowaat réunion ne nag bu njëkk ba ñu ñu séqaloon mooy ñu nekk ci réew mi ak liy xew ci réew mi nee na ñii tey ay force lañ yoo xam ne ñu nekk ci biti lañ te nit ñi nee na ñooy dañoo am doole nee na ñooy noonu laa koy tuddee muy franc-maçon dëppoog dikkug Rihanna gaak yu ci baree baree bari mhm. bi ñu dajaloo waxtaan ñu ne nag dañuy changer stratégie mhm. ndax bu njëkk ba sénégalais lañ doon waxal ànd sàmm jikko yi ñëpp xam nañ mais il faut ñu tur woo xam ne buñ ko waxee mhm. euh, mboolem tubaab yi nekk ci àdduna bi tur woowu danañ ko dégg ci lañ jëlee ànd sàmm jikko yi léegi tuddee ko collective non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité collectif boo xam ne day bañ lépp lu jëm ci wàllu franc-maçonnerie ak lu jëm ci wàllu ngóor jigéen loolu moo dugal ñu bari di dégg ànd sàmm jikko ñi dañuy xeex franc-maçon yeeg góor jigéen yi loolu après la dab mais franc-maçon euh, ànd sàmm jikko yi ba juddu site internet yu doon wane yu bon loolu moom moo juddloo ànd sàmm jikko yi moo jir loolu mhm. ay artistes yi doon fu futteeku mhm. ay futti ay jigéen mhm. ñooñu lañ njëkk a xeexal ci wàll googu noonu le ba franc yi di fi ñëw nañu ñu changé tour tudd non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ci lañ jóg réunion waxtaan defaat suñu tournée dem ci xalifa yëpp ne la bi la ngi bëgg a xaw Sénégal Sénégal franc-maçon àdduna bi tey nee nañ Dakar lañ bëgg def mu nekk seen capitale gis nga suñu yëngu-yëngu yooyu dëppoog Rihanna dafi dikk mhm. tey ku dugg ci biir euh, internet bi boo tapé turu Rihanna Sénégal rek mhm. collectif ànd sàmm jikko yi ñoo njëkk a génn mhm. léegi rek maa ngi doon xool benn article maa ngi gis Le Monde mi ngi bind ne am na benn collective buy bañ dikku Rihanna noonu la titré article mu ne collectif boobu dañ ko def honte journaliste bi noonu la titré article journal Le Monde mboolem journal yu mag yi nekk ci àdduna bi benn kuréel boo xam ne lu mat fukki nit ñu engagé wu ñoo ci nekk ñu bind lu ne ñu saaga na ba këru franc-maçon yi nekk France nga xam ne ñoo gën a mag ci loge maçonnique yi keroog jour bi ñuy amal suñu journée bi fii ci mosquée bi nekk ci wetu aéroport ci lañ jot seen benn déclaration ñu ne dañu bëgg gouvernement Sénégal jël seen responsabilité ci nun ndax ñoom franc-maçon yi du nangu benn kuréel bu ndaw ne daf leen di empêcher pour ñu ñëw def li ñu bëgg a def faale wuñ leen keroog ca journée ba la ñu liir seen déclaration ba mu jeex. Mhm. mais taxul ñu reculer. Mhm. ñu ne nag Rihanna déclaré nañ ko muy personne non grata ci Sénégal du fi teg mhm. tànkam. def tournée média yi fu nekk ñu dem fa. mais laataa Rihanna dikkam bi noonu la franc-maçon yi am na benn hôtel bu nekk fii déposé woon nañ fa seen xaalis. ba foofu la ñu waroon a dal. borom hôtel ba moo leen woo ne leen kat seen xaalis a ngoog ndax ñu nekkatuñ en sécurité. Hmm. ma jumul mu niiru si xew ma. Hmm. muy muy muy hôtel bi ñu tuddee Méridien tey. Hmm. foofu lañ waajoon pour war fa ñëw. gannaaw yàlla yëngu-yëngu ànd sàmm jikko yooyu. moo tax franc-maçon yi ñëwunu Sénégal. annulé seen ndaje bi am na beneen réew ci réewu Afrique yi ñoo xam ne ñoo leen mujj dalal. mais Sénégal dikkunu fi. léegi nag mu des Rihanna ndax xam nañ ne dikku franc-maçon yi. ak dikku Rihanna ak Macron ñoo ànd. léegi ñun ñu am renseignement ci biir ànd sàmm jikko yi ne ndekete école yi nekk Sénégal yépp ñu ngi waajal dikkug Rihanna xale yu jigéen yi ñu ngi naan Rihanna bu ñëwee concert bi ñu fi war a def ñu ne lii bu ñu ko seetaanee Rihanna mooy kan mooy koo xam ne jaamu seytaane la moom ne ne gëmul yàlla yàlla du yàllaam mais seytaane mooy yàllaam te dafa bokk ci ñu gëm mbirum nudis nga xam ne futtee ku def yaramu neen sol yére da leen di déranger moom ñi ngi defal ñooñu promotion la bokk def ay clip bi ci wëy seytaane mi yàllaam ñu ne ku mel noonu nag ci suñu réew su ñëwoon ne day def benn concert d'accord mais ñu ne dafay ñëw pour jiite benn collecte bu jëm ci wàllu éducation bu jëm ci wàllu éducation Rihanna moom lañ jël moom moo nekk ki war a jiite collect bi ñu ne bu ñëwoon di def concert sax c'est bon ñu ne réew mi réewum démocratie la ànd sàmm ji koy ne Rihanna du fi teg tànk attaque bu nekk dégg nañ ko ci imam yi mag taxaw nañ fii xutba nañ ñii ñooy ñan ba naan Rihanna du ñëw Sénégal. Mm-hmm. ana Fatima Rihanna yi xaw ma lan Rihanna xaw ma lan Rihanna mais moom ba muy wax xamuloon li xew. ndax nit mën na jàng diine di xutba di wax te xamul li xew. Mm-hmm. mais ñun ñu nekk terrain bi. nekk à jour nekk à jour à jour. adopté bi. xam li xew. Mm-hmm. ñun moom kooku noonu taxaw di ba naan mooy ñan ba Rihanna war a fi ñëw duñ ko déglu. ñu def suñu yitte ba Rihanna bi muy ñëw Sénégal. waajal gañ ko waajaloon ak dikkam ak lépp. dañu mujj changer programme. ndax dañu programme woon teertu ko aéroport. mu waroon fee def concert. mais Rihanna ñëw na ba yegg si Sénégal nit ñi naan ñëw na ak ñëwul. bi muy ñëw garde yi gën a ay ci àdduna bi la luyee pour ñu ñëw garde si ko Sénégal. ci benn kuréel bu tudd ànd sàmm jikko yi. ba ñëw na ba nekk hôtel nit ñi naan ñëw na am ñëwul. benn yoon la Rihanna affiché wu Sénégal. mooy bi mu demee ci centre Abdou Diouf bu Diamniadio. ñuy def collecte bi. sol colom googu ñëpp nee nañ kol rek a ci desoon mu doon ibaadu mhm. mooy colom gu gudd googu noonu leen mu sol mhm. koo xam ne nii col gu bon ci àdduna bi moom moo jiite sol ko mhm. benn yoon boobu la affiché wu jëlaat volom ne te bi ba Macron di dem Ndar demul ndax lan renseignement yi dañ ne ko sa bakkan wóorul ci Sénégal li ànd sàmm jikko yi ñoo ko liggéey bi ñu jugee nag ci lu mel noonu ànd sàmm jikko yi après collectif bi di doxee turu non à la franc-maçonnerie and à ñu bari xaw a ragal mhm. ndax tur bi dafa rëy ci ñoom mhm. ci lañ mujj ne nañ bàyyiwaat tur ca wolof ba mhm. <laughs> waaw bañ ko tuddee ci non à la franc-maçonnerie mais ñu tuddee ko rek li nga xam ne moom mooy ànd sàmm jikko yi ah ci la yàlla dogal nag lu fi xew lu jëm ci wàllu yu te mooy gën a yaatu sax nag mooy gën a yaatu ñu jug ci taxaw ci diggante boobu nga xam ne ñu ngi koy delloo waat ci ànd sàmm jikko yi man ci laa gis Babacar Mbuub ak engagé gi mu engagé ma ne man li imam Babacar Mbuub man mënuma ko maa ngi polo bis bi ñu bi may wax ne nañ ko jël mu nekk ci bopp liggéey bi boobu man maa woon fekk boobu dañuy def tour chaque mois oustaz Saïd xam na ci dara dañuy dem kër kenn ci ñu bokk ànd sàmm ji koy fa la ñuy dajaloo waxtaan jël actualité waxtaan ci mhm. man bi ma ayee euh, ca golfu ci la ñu wax ne nag léegi Babacar Mbuum nañ ko def mu nekk coordonnateur bi mhm. mu jugee ko ci sama loxo mhm. waaye li nga xam ne moom moo jàlloon noonu yëpp mhm. ñoo nekkoon di ko coordonné waaye gis nañ boobu Babacar ak engagement bi mu am ak taxawaay géeg yitte ju kawe ji ma gis ne kii daal li man ci liggéey bi man mënuma ko te disponibilité bi mu am wax dëgg fa yàlla ñun amuñu ko ci lañ ko ko dénk bu fekkoon ne fekk na ñun bi ñu koy coordonné mu nekkoon ci benn mu yóbbu ko junni ci yitteem yu koy tabaraka loolu nag moo dem ba jur nag mhm. ñuy dox ay jéego ba yegsi ci li nga xam ni xam naa moo waral tey jataay bi mhm. muy criminaliser ak ngóor jigéen mhm. waaye lii mënu ko ñàkk fàttali mhm. ndax ñu bari dañuy dégg ànd sàmm jikko yi dañuy xeex franc-maçon yi góor jigéen yi mais xamuñu mbir yi fan la déparé mais mi ngi déparé woon ci fi vidéo yu bon yi nga xam ne tey mi ngi tasaaroo ci internet yi ba muy door di dugg ci réseaux sociaux yi maanaam di dugg ci site internet loolu moo tax ànd sàmm jikko yi judd ñu ne nag kuréel la boo xam ne nii euh, amul couleur nii tariixa ba ci religion ànd sàmm jikko yi chrétiens yi ñu ngi ci biir ñi gëmul diine sax ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi loolu dana jaaxal ñu bari maanaam baat bi ni mu tudd lañ wax ne képp koo xam ne loolu ñor na la kaay mooy ànd sàmm jikko yi foo manti bokk-bokk fa murit ba tiijaan ba xaadir ba layen ba ibaadu ba chrétien ba ku manti doon ànd sàmm ji koy sa ànd sàmm ji koy la mhm. l'essentiel ku ci nekk la nga gëm mhm. danañ la ko respecteel mhm. nga nekk ca di ko dund mhm. mais bu cause ànd sàmm jikko koy jotee mhm. ku nekk na denc la mu gëm mhm. ñu bokk ñun ñëpp défendre cause boobu buñ paree ku ne delluwaat ci la nga gëm ku ne delluwaat ci la nga gëm léeg-léeg ñu bari danañu am benn njaxas buñ gisee benn kuréel boo xam ne dañuy gis ibaadu yi toog murid yi toog tijaan yi toog xaar ñu naan mais ñii moom ñoo ñan ñii nan lañ mën a toogee ñoom ñii te ñii fekk dañu xamul ne cause bi nu boole moo gën a rëy loolu nga xam ne moo tax nga yaakaar ne waruñoo toog muy benn kuréel boo xam ne ni defe naa ci Sénégal bokk nañ ci kuréel réussir lu mel noonu mooy mën a dajale tarixa yi mën a mm-hmm. dajale association islamique yi mm-hmm. ba nga xam ne tey ànd sàmm jikko yi bu jotee mm-hmm. ñëpp bu wootee ñëpp ngay gis ñu ñëw toog ci alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla loolu jëm kanam ba ci ah. chia yi waxuma sax ñu bokkul ci tarixa ak association islamique mais chia yeeg ñëpp ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi. dëgg la euh, tabaaraka jërëjëf euh, Imaam maa ngi gis euh, benn mbokk mu nekk Amérique mi ngi may wax ne nu may def ba bokk ci kuréel bi ndax yàgg naa leen a topp. Mm. xëy na balaa jotaay bee jeex di nga am foo xam ne di nga fa mën a jaare ngir bokk ci ndax ñoom it ña ca àll ba. Mm-hmm. bàyyi seen i kër fii ak seen njaboot. mais bu ñuy seetaan vidéo Sénégal yi ak yenn média yi dafay mel ni Sénégal moom dara baaxutu fi. ñoom gis-gis boobu la ñu am te loolu da di ragalloo euh, te loolu jàpp naa ne lii dana bokk ci li leen di dalal xel euh, kon mu nekk loo xam ne ni euh, kilifay diine yi lañ ko defal parce que tey ñoom bu ñu joxee seen signature joxe seen kase joxe seen mbooloo ci ne nañ ko def c'est parce que ñoom loolu lañ bëgg mooy nit ñi jàkk loolu laay wax chaque chaque fois dama koy wax dama leen di wax ne maanaam Serigne Touba mi nu yaakaar daayira ak mbooloo yi am na solo waaye nekkuloon yitteem bu nekkoon yitteem du beru yitteem moo nekkoon nit ñi jàkk nit ñi mucc bu yoomal xiyaamee nit ñi mën a jàpp daaj tàbbi ca kër kër kër àjjana ga mm. loolu rek moo nekkoon yitteem mais pas que ñuy dajale ay ak i dërëm wala mbooloo loolu mu nekk loo xam lu am solo la mm-hmm. kon bis boobu ñu nga xam ne ca la ñuy dajee lu ni te def ngeen liggéey bu am solo nag ndax am na noo xam ne su ngeen ko ni seetaanoon kon néega ni romb nañ fii affaire boobu ndax gars yi dafa mel ñoo tànte benn affaire mu nekk xalu tàng ñu reculer waat mais bu ñu bàyyi woon dana dana dana romb fii te kon su boobaa suñu njaboot gu bari danañ tàbbi ci biir piège boobu te mu nekk loo xam ne nii danañ am ay norme di am ay si ay ay panneaux de signalisation yoo xam ne nii tey ku dëkk nit koñ nga bëgg a lu ñu war a def sax di nga xam foo koy jooyee. Hmm. mais xam nga li problème mooy la la la la bukki waxoon ne am na nag wu dee am na nag wu dee waa ji topp ko ne ko bukki na ko nag wi daaj bi am na solo waaye daaj de am daaneel am na nag wu dee da ngay fan la dee. <laughs> ko defee ñu mën a dem jëfandiku. mooy cest à tey bu nit ñi naan réew mi yàqu na réew mi yàqu na. fan laay dem pour jooytoo ko léegi su lii taxawee rek ñu dooleel leen kattanal leen dana dem ba nit ñi danañ ne ah xaaruñu ñu dem seeti waa ànd Sàmm Jikko Yi suñ fa yeggee lii yaakaar naa ne dana saafarawu hmm. kon mu nekk loo xam lu am solo la euh, sëñ euh, Oustaz Sane it fii sëñ Maxtaar daal ne rek fa laa lay bàyyee dafay mel ni ñëw na ci tënk résumé ñu li ko tax a jóg hmm. ñëw na itam ci réalisation yi nga xam ne nii ku ko déglu tey mu ndëkk tàbbi sa nopp bi nga xam ne ah kon kat ñii def nañ hmm. war nañu xalaat ñii ba ñuy def fa yan moyen la ñu trouver pour def ko parce que dañuy sacrifier seen bopp di dajale ci seen temps di boole seen alal ngir mën a jënd parce que téléphone yi buñ ko xeeb connexion bi gasoil yëpp ci biir lay bokk waaye loolu mooy volonté ngir defar sunu réew ndax bay day tàmbalee ci sa weewu tànk lan nga nuy indil ci taxawaayu kuréel gi ñu door a ñëw nag ci eh, partie bu mujj bi ci sensibiliser nit ñi nag ci bis bi ngir ñu génn mettitlu ak naqarlu waaye itam nag bokk benn doole bañ xam ne lii du fi am te du fi mës a am eh, muy wàllum franc-maçonnerie muy wàllum góor jigéen ak yeneen yi nekk ci suufam nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay mbir la yoo xam ne ni mën na yóbbu nit ki ci bàkkaar yu mag yooyu alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam def naa ne li oustaz Mokhtar wax mun nañu ci yokk dara ndax defal na la benn jaw la boo xam ne amul benn ruq boo xam ne bàyyi na ko ci Euh, xanaa rek di ko fàttali Matignon dañu génnoon bi ñu renvoyé seen kii bi fii euh, dal di tëkk waa Sénégal ba leen bu ngeen jëlul ay matuwaay. Mhm. ba fexe ba waa sàmm jikko yooyee. Mhm. ngeen sànni leen ca xacc mhm. su waa yow président Macky Sall yow la ñuy waxal. dinañ rëq sa ndigg lu jiitu loolu préfet Dakar dafa bind. ne du ñu nangu mukk. ñu fiy def seeni réunion. bi mati ñoo génnee ba wax menace boobu ñu dellu si ne képp ku mën a doon am nga droit def sa réunion association yaa xam looy def mm. Mm. mais l'essentiel ñun suñu objectif alhamdulilah rabbil alamin am nañ ko mm-hmm. ndax euh, bu dee reyaanaa ñetti fan la fa waroon def def vingt quatre heures mm-hmm. xëy daw mm-hmm. kii nga xam ne mooy Macron dellu siwul Dakar Saint-Louis la dawee ngir lan mooy ne am na ñoo xam ne saa su ne dañuy nekk ay bouclier ngir lan ñay tëdd di nelaw mhm. ñii di lekk tal ko ñii jege seen soxna yi am na ay soldaar yoo xam ne mhm. sedd mi ngi leen di rey naaj mi ngi leen di rey mhm. xiif mi ngi leen di rey seen alal itam du ko fekkee ngir ñeneen ñu mucc moo tax sañ sëñ Muntaxa yàlla ko yàlla yokk wérte gën a dëgëral amiin amiin amiin euh, xalifaam gi yàlla mottali ko naal yi mu mottali ko ak sagoom kene bi ñu ko waxee ne ñun dañ jóg ngir waxtaane ak yéen mm-hmm. mooy sunu tournée bi daaw jéeg mm-hmm. mm-hmm. euh, bi ñu waxee ba wax wàllu borom ñaari tur yi dafa ne tuub wax ko ñetti yoon bi ñu ko waxee fi ñu jaar fi ñu jaar ba egg si fii mu ne yéen ñun ñoo leen waroon fay ndeysaan ndax ñun ñun ngeen di liggéeyal ma wax ko keroog ci plateau bi waa ji ne ma est-ce que yéen yéexu leen jóg ndax France maçon yi seen programme teg nañ ko bu yàgg ma ne ko ñun depuis la révolution tororo mm-hmm. lañuy ñuy jóg ba suñu joon yàlla tey <laughs> ma ne ko ñun li nga xam ne sëñ Touba mm-hmm. Seydi Ajmar radiallahu mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass Thierno Seydou Nourou Cheikh Omar Foutiou Amari Ndaat ñoom loolu nga xam ne sampoon nañ ko Sénégal ba Sénégal nekkuñu di lekk yàpp mbaam duñu naan sàngara képp ku fi jaay sa bopp sax dangay ngay làqatu jamono boobu réew yi ñuy wër yëpp màbb nañ jëm ci loolu ñu ne ñan mënuñu fi indi lu niroog loolu comme ñoom loolu ñu fi samp ci jikko yu baax. ñun dañuy fexe ba préserver ko ba kenn du ko buddi. moo tax ñun waxuñu ànd saxal ay jikko yu baax. dañuy sàmm li ñu suñu maam yi jox comme nono ngir kenn bañ koo yàq. Oustaz Massar xam nga ànd sàmm jikko yi bokk na lu mu gën a réaliser. mooy ñi ragalante woon di tuumalante di jiiñante ndëmm wëlbatiku jegante soppante kenn ku ne sa morom gënal la sa bopp ngir dañu xam ne neexul kat seytaane moo doon wax ne ñii ñooy wax lii ñii ñooy defee ne fekk loolu lépp pexe seytaane la xam nga nag eh, lii di ànd sàmm jikko yi damay wax ne tawfiq ilaahiya la ndax jamono bu ne yàlla dina indi ay ndaw yoo xam ne innahum fitatun amanu bi rabbihum wa zidnahum huda mooy ñoo xam ne dañuy jóg xam nga ngir lan mooy kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas mooy dañu jóg féete ñeneen ñi nga xam ne mënuñu féete fii ñu féete ñu féete leen fa ñoom ñu féete ñu feneen ndax bu dee ustaas mi ngi jàngale ca daara ja mm. sëñ mi ngi jàngale ca daara ja mm-hmm. sëñ Muntaxa mi ngi yor tarixa bi mm-hmm. Oustaz Matar mi ngi yor daayira bi yor xadara bi mm-hmm. keneen yor xadara bi mais mbedd bi ku ko yor diggante gàmmu mm-hmm. ak màggal diggante tabaski ak korité diggante weeru koor ak weeru koor jullit ñu nekk foofu nan la ñuy fexee ba li ñu jëlee ci manifestation yooyu ci daayira yooyu ci gàmm yooyu ci màggal yooyu nan la ñuy fexee ba ñu mun ko ictimaat ci seen dund nan lañ koy fexee ba matérialiser ko ba seytaane di rocci sa ngëm yàlla diggante daayira ak daayira diggante tuur ak tuur diggante tabaski ak korité mhm. loole mooy xam ne moom la ànd sàmm jikko yu jóg di taxaw mhm. te point bi gën a sensible Oustaz Makhtar wax na ko mooy bu ñu demee ba kersa dee ci doomu aadama mhm. kersa boobu nga xam ne waa jooju tegoon na ko jël ay jigéen futti leen comme ni leen seen wuy jur juri jël ay peinture ak ay argile di ko leen di leen ko raax ñu taxaw noonu nga xam ne ñii ñi ngi jéem a bëgg jaay seen kersa ñu ne noonu kersa amul njëg lu ñuy def mooy suñuy rakk yi suñuy doom yi suñu tànt yi nga xam ne ñu ngi martalu ci yoonu seytaane nan la ñuy fexee ba récupérer leen kon récupération boobu moom moo waral am na ci yeneen yoo xam ne moom waxu ko am na ñoo xam ne ndeysaan ñu ngi doon jaay seen bopp am na ñoo xam ne ñu nga doon nekk ci yoon boo xam ne daanaka bu ñu leen woon tey ay góor jigéen lañu ñu récupérer leen am na ci ñoo xam ne sax nabi solidarité jàppal na leen ba ñu mën a teg ay taabal ay projet yoo xamante ne bi bi maanaa loolu lépp dafa nekk ci ànd sàmm jikko yi mhm. léegi nag lii nga xam ne moom la ñu dëgmal nag mhm. mooy li gën a doy waar mhm. muy pla planification familiale boo xam ne moo gën a bon yi fi mu sa jaar yépp planification familial lan lañ doon wax nañu bañ di nàmpal nañuy nàmpalee biberon ñuy nàmpal biberon gars yi di jutt ñu dellu wen ci ween gars yi di jur Macron daaw jéeg mu ñëw Afrique mu ne yéen da ngeen mën a jur ndax benn sénégalais wala benn malien wala benn burkinabé lu mu gàtt gàtt dina am juróomi doom ak genn wàll jamono boobu ñoom mënuñu am benn doom. ñu ne kon planification boobu nga xam ne ñu ngi ko doon def jàllul. ñu indi avortement médicalisé avortement précoce indi ay pilule de lendemain indi ay lii di ay condom. fexe doomu aadama yi nan la ñuy fexee ba njaaloo te duñu am doom wëlbatiku créer ay loi yoo xam ne donte temps bi du fi xaj mooy boo demee ba sa soxna sax bu amul envie bu yi amul yëg-yëg ba nga jege ko yow bu xëyee mun na la porter plainte beneen bi teg ay plan boo xam ne dañu wut ay oustaz ñoo xam ne dañu lañ ko tuddee ñu bëgg banaliser li nga xam ne mooy awra seen waxtaan yëpp awra la pour doomu aadama yi dem ba nga xam ne de awra dootul nekk loo xam ne day doon awra waaye da doon ne fang ndax awra mooy lu nëbb kon planification yooyu nga xam ne ñi ngi ko doon teg bii nga xam ne moom la ñuy xeex nag moo ci gën a bon bu ñu demee ba góor dootul jël jigéen dootul jël kon su boobaa mooy am wax naa bi ñu demee Touba ma ne bu fekkee ñoom réussir nañu seen programme bi ñu teg xiif xiifloo nit ñi marloo leen tumarankaloo leen tëj seen frontière ba yow lépp loo amoon ci meññeef ñoom ñu ŋàcc ko pompe ko yóbbu ko seen dëkk yow nga bëgg faa dem jëli ko ñu ne yow doo fa dugg ndax duñu la may visa moo tax xale yi bi ma waxee ne ñi ngi dugg ci géej gi dañuy jëli seen moomeel bi ñu jël ci ñoom ndax lu mel ni France nga xam ne moo jiitee li nga xam ne IDAO. nga xam ne en 2006 lañ ko teg. Ramayad moo fa nekkoon secrétaire d'État. ngir lan droit de l'homme yi ak les nouveaux droits bi nga xam ne dugal dugaluñ ko woon ci en 48. ah ñu fa fas yéene ko ci dugal en 2006 fexe gars yi ñi nga xam ne ñooy personne yi nga xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen ñu ànd ak ñoom pour ñu signer ko yóbbu ko Nations Unies ba 2008 ñu daal di koy dugal mu nekk projet de loi en 2011 dañ ko daal di valider. Hmm. kon programme yooyu ma dellusiwaat si. mooy fexe ba doomu aadama yi dootuñu dund. Mhm. fexe ba population mondiale bi ñu wàññi ko téeméer nit yoo gis ñu fexe ba wàññi leen ba ñaar fukki nit ñoo ciy des. Mhm. téeméeri nit yi doon liggéey ñu fexe ba juróom-ñett fukki dootuñu liggéey Oustaz Makhtar ñaar fukki ñooy liggéey. Mhm. xoolal ci wàllu télécentre léegi est-ce que télécentre amati na. folli nañ ko. xoolal ñu doon jaay carte. folli nañ leen léegi tàppe la dangay toog fi nga toog. tàppe mhm. boo demee coopérative bi nga doon fayee facture mhm. léegi dañuy fexe ba duñ la yónnee facture mhm. ndax du ñu jël koo xam ne dañ koy fay mooy indi facture waaye day toog seen kër envoyé la code bi nga daal di dugal loolu lépp ci programme bi nga xam ne mooy stratégie bi ñuy teg xiifloo nit ñi marloo leen def leen ay chômeur ba pare ne leen góor jigéen gaa ngi les jigéen baa ngi gun baa ngi transsexuel yaa ngi genre yaa ngi te boo fi duggee ñu jox la yoon woo xam ne dinga am te yëpp ay xeet la ay xeet la léegi nag bu fekkee dañu seetaan nee su boobaa daayere kenn du fa nekk association yi kenn du fa nekk bu ñu demee ba juratuñu xiif ñëw na ñu ne la wàññil sa njur nga gis koo xam ne dafa ne gëm na yàlla ne moom kat doom ji war a judd moom moo yor wërsëgam te moom avant muy am benn wërsëg yàlla jox na ko wa aataakum sa ma saaltumuuhu yàlla nee na balaa ngeen may laaj man jox naa leen dëgg la yàlla jox la wér mhm. jox la nga bekk ci xeet Seydina Muhammad mhm. def la ngay sénégalais am ay waajur yu baax mhm. ne la nag loolee nga xam ne am nga ko ay mag yar la ci nàmpatal la ci fexeel ba sàmm ko yow nga bugg koo jaay ngir lan dërëm Euh, lii mooy def benn synthèse boo xam ne Oustaz Makhtar waxtaan fi loo xam ne kenn mënu ci yokk dara te li mu wax noonu da ko tënk de mhm. da ko tënk dëgg la parce que li mu ci wax moom wallaahi am na lu ci des non non damay bëgg sax damay bëgg sax bu lii jàllee mhm. ñu def ci benn kii boo xam ne nii dañ koy jël de temps incha allah mën a bu ko defee éléments yi ñuy am yëpp sax ñu mën ko teg ci écran bi effectivement ñu xam ni ay éléments la yoo xam yu ngeen dox la image yi ngeen am dem ci kilifa yi diine yi hmm. parce que dafa sensibilisation la boo xam ne ñëpp ci war a bokk hmm. ak dénonciation yi ne ñu ngi koy def hmm. boo gisee par rapport ak coow li permis yi commencé waat nañ def sexe de genre lañ ci bi waaw waaw waaw reeteet rek dëgg la waaw jërë jëfaay jëf waay loolu de lu am solo la moom ndax Euh, genre partie yi nga xam ne nii weesu wuñ BFM sono sonaloon nañ leen lool lool lool waaye dafa nekk loo xam ne nii dafa war a intéresser ñëpp. Mm-hmm. xam nga li imaam wax léegi nga wax ko dafa daw yaram mooy tey euh, nga nekk imaam di xutba di di attaquer wala ngay defendre ñoo xam ne ni xamoo lañ lal ci biir lan la sama maam daan wax ne tubaab bu bëggee nga jënd ngooñ dalay may fas. bu la mayee fas da nga jàpp ne daa baax fekk baaxul de dana récupérer xaalisu fas bi ci ngooñ bi lay jaay mooy gars yi dafa am lu ñu leen di jox ci kaw rek mm. won leen ne lii civilisation la mondialisation bi jamono ji moo ko laaj naa nga fekk lañ lam ci biir duñ ko wax mm-hmm. léegi nag ñi nga xam ne nii tey adopté nañ jàng li gars yi jàng xam li réew yi doxe di jot information en temps suñ jugee di défendre loolu ngir méngale ko ak doxalin islam ay lay ween dooleel leen leen mm. nañ ci def ay ba kuy xutba waxal ba ci biir nga ne am na mbooloo mu jóg mu tudd ànd sàmm jikko yi na ngeen ciy taxaw yéen ñëpp te lu ñu watu ñu dem ci te loolu ko fi jële de amul leneen lu ko fi jële doole doogu ko fi jële mooy lan hmm. mooy lii bëgguñu ko su suñu réew te buñu demee ci texte yi kat am nañ droit boobu nag hmm. parce que ñoo moom suñu réew te ñun ñëpp am nañ ay carte nationale d'identité bàyyi xel résolution internationale yi ñoom ñoo noo hmm. suñu loi bi ñu jëlee Nations Unies. Mhm. ñu ratifié ko. Mhm. constitution Sénégal mënu koo dindi. convention mukk ay convention la. Mhm. dañ koy dañ koy teg gi bu doy waar. te Oustaz Matar euh, seen vingt temps yi nga xam ne dañ ko teg pour les nouveaux droits gars yi am seen àq dafa am ay ponk yoo xam ne dañ ci tënk bépp réew woo xam ne bokk nga Nations Unies pour nga nangul ko ñi nga xam ne moom mooy. Euh, góor jigéen ñi ak seen ay xeet ngir lan mooy ne bu ñu yeggee ci deux mille vingt six doomu aadama am droit fii ci Sénégal dem fii ci mairie ba góor ak góor taxaw officier d'état civil bi di ko bindal certificat de mariage am ñuy échanger ay banque ndeysaan Tubaarkàlla sëñ Maxtaar mhm. euh, xam naa ne waxtu wi la ñu cëraloon mat na mhm. euh, ñu ñëw rek ci bis bi nga xam ne nii moom la ñuy soññee ñu sonnuñ ci mbokk yi Euh, muy le 23. Mhm. Euh, mu nekk bis boo xam ne nii bëgg nañu xam heure bi. Mhm. organisation bi muy demee kuy ñëw nan ngay ñëwee. Mhm. ak li nga xam ne ni mooy euh, mooy mooy mooy teewaay bi foofu soxla giñ ko soxla. ngir bokk défendre li nga xam ne ni ñun ñëpp dañ ci am wàll. parce kenn bëggul am doom mu mu sikk. te am na ñoo xam seen yitti yëpp mooy yàq nit ñi ba ci internet bi yaa ngi koy wax léegi am na ñoo xam seen objectif mooy yàq askan wi. loolu mooy seen yitte. loolu moo waral ñu créer ñenn ñi lii moo tax karal moo waral ñu créer ay page Facebook ñenn ñi lii moo waral ñu indi Instagram parce que nga gis xale yi da ngay gis ñu wane dara ñu ne ah lii de ci Instagram mu diw laa ko gisee lan ko kooku Instagram lan moo tax mu créer ko moo yàq ay jikko képp moo ko waral te ñoo ñëpp dañ leen war a dénoncer di leen kii euh, mais boo demee Arabie Saoudite ak Dubaï protéger nañ seen i doom tey juif yi ñuy wax nii nii nii ci léegi ci Israël lijjanti nañ ba ku dëgg seen ku dugg seenu dëkk am na compte yoo xam ne ni ak ay sites yoo xam ne amoo doo fa dugg amoo fa accès dañ koy sécuriser Dubaay gi boo fa demee doo wax WhatsApp am na sites yu bari boo bëggee dugg dañuy lànk dañ koy bañ mais loolu xëy na ñun suñu technologie wala suñuy kii suñu gars yi nangoo ko waaye lii mooy dem ba jur loolu nag ñu leen ci nangam lañ bëgg ñu defal na ko ci suñu réew mi ñu def la ko kon sëñ Maxtaar ñëw ci sensibilisation bi ci journée bi dama bëggoon pëtëkal foofu balaa ñu dugg waaw ndax duñ ci génn mm-hmm. bon bu fekkee dañu wax ne mm-hmm. Arabie Saoudite dama ko tudd mm-hmm. dafa ne bokk na ci ñiy màbb diine dañoo dem ba dañ doon jël seen avion yi di dem ci États-Unis Las Vegas di fa carte xaalis di fa jege jigéen ñi woyof sër mm-hmm. Salman ne dina leen ko tabaxal biir Arabie Saoudia inauguré nañ fa plus de sept dancing mm-hmm. boîte de nuit yoo xam ne tëgg ak fecc ak sutteeku moo fa nekk kon bu fekkee ñooñu dañuy xalaat ne dañ nañuy clipté ay chaînes yoo xam ne dañuy wone ñaaw. Mhm. man dama naan déedéet. déedéet waaw boo yàlla ñu yàlla wàllu rek. <laughs> waaw sëñ Imaam euh, mhm. euh, gis nga sëñ Hamidou. Mhm. yëg-yëg la sénégalais yëpp war a am. ci li wolof yi doon wax wure wa dem na këng. waxuma ak dem na. <laughs> Euh, ndeñtaali ndeñtaali bàgg war na mbaam. gis nga rek léegi rek ñu ngi yónnee ay vidéo yu bari sama WhatsApp. Espagne ñu ngi doon feete. Euh, journée bi ñu jagleel ngóor jigéen ñi. ñu def réew yi nga xam ne nii yëpp nangul nañ leen seen drapeau Sénégal drapeau mu nga ca biir. 17 mai. drapeau mu nga ca biir drapeau réew yi nga xam ne. Mm-hmm. ñu ngi leen di soutenir ñoom góor jigéen ñi. Mm-hmm. verte jaune rouge bu Sénégal mu nga ca biir. <laughs> sunu njiitu réew. Mm-hmm. ñu dégg wolof. buy wax ak ñoom seen xel day dal. ne Sénégal moom góor jigéen lu fi mos a am. ndax président wax na ko mu leer. Mhm. Obama bi mu fi ñëwee wax na ko. Mhm. premier ministre bu Canada bi bi mu fi ñëwee wax na ko. Mhm. mais ñu jàng tubaab tuuti. dem ci taxi yi. dañuy gis ne senegal ndekete xàllal nañ yoon wu yaatoo yaatoo góor jigéen. ah bon bu rëy rëy. li ci gën a jege. tey carte d'identité yu bees yi nit ñi sénégalais lu tax ba léegi posé wuñu question. Mhm. lu tax seen carte d'identité yi ñu génne ci seen yaay ak seen papa. amu ko. Hmm. léegi dañuy toog rek ne amu ko amu ko kenn du toog gëstu lan moo tax. amu mhm. Mhm. maa ngi jaaree ci Touba TV nii di invité ñëpp. nañ génne seen carte d'identité ñu xool ko rek. ne sama carte d'identité bii. amul sama turu yaay ak sama turu papa. te bi fi woon. amoon na sama turu yaay ak sama turu papa. nga ne lu xew. nga tàmbali bis ni ki tey di laajte lu xew ak di gëstu lu xew ba tax ñu génne ci sama turu sama turu ndax dañ ko fàtte erreur technique la après nag question yi di juddu danga am réponse bi ànd sàmm jikkoy réponse bu simple lañ ci joxe mooy dañoo gis ne góor jigéen ñi tey dañ leen di xàllal yoon xàll wu toll ni soo ñëwee di def ne diw sàngam am na yaay am na papa góor jigéen bi adopté adopté doom day am problème ndax góor jigéen bi nga xam ne moom dem nekk na góor jigéen ne takkante na ak moroomu góoram. ak jigéen ji takkante ak moromu jigéenam. léegi ay mère porteuse xaw ma lay porteuse lañ leen di tuddee. ñooñu lañ mën a dem ci ay sperme sperme yu ñuy jënd ñu denc ko ci ay banque nangam ak nangam. ñu dajale fa wala ñu lijjanti fa jënd doom. ñëw ne doomoo nañu ko. doom jooju ñu doomoo. Mm-hmm. munul am pair ak mère. ndax peeram om la meeram tamit om la kon léegi avenir bii ñëw kooku nañ ko sóoraale ci carte d'identité yi léegi li gën a simple mooy gannaaw góor jigéen yi dañoo bokk ci géew bi ak jigéen góor yi léegi nañ defar carte d'identité yoo xam ne nii dañuy def rek diw sàngam déedéet diw sàngam ak santam mais man li ma jaaxal fa sax imaam mooy léegi da ngay dem sax di wuti benn dossier ñu ne la carte d'identité bu njëkk ba ngay génne parce que bii soxlawuñ bi mais moo sénégalais yi dañuy nelaw moo tax journée le 23 bi sénégalais yi mën a génn ndax léegi yow boo demee tribunal soxla benn papier ñu ne la indil sa carte d'identité bu njëkk ba mooy wane ne kon ba léegi ñun suñu institution yi dafa soxla ndey ak bàyyi léegi pourquoi ñu am carte d'identité yu ci génnee ndey ak bàyyi mooy buñ la ko waxee buñ la ko waxul góor jigéen yi dañuy gis seen bopp ci carte d'identité yi seen doom yi ñuy bëgg a am ndax góor ñi mënuñoo wasin te ñu ngi takkante. Mm-hmm. fësale guñu ko nag ci Sénégal ni ñi mais fii ak génération bi ñëw. bu ñu jugal taxaw dañuy takkante publiquement gouvernement du Sénégal def na document bu tudd Sénégal kuy jàngkat demal nga uti ko. 2016 ba 2026. Mm-hmm. tëral nañu stratégie yoo xam ne képp koo xam ne dem na ba jamono dina ñëw. soo waxee góor jigéen sa bët bi suufa ngi ci. Mm-hmm. mu porté la plainte nga dem ci kaso bi. Sénégal gi ñoo liggéey document boobu France liggéeyuñ ko Belgique liggéeyuñu ko Sénégal la tudd. oh là là. léegi nag nit ñi bu ñu toogee naan non loolu du fi mos a am. yow ñu indi man carte d'identité yooyu laa am. yow ñàkkul ci nga am. mooy yu bees moom laa am man du ma ko sa xool. sa tur yaay ngi ci sa turu papa ci. man sama ba sama tur yaay sama turu papa nekko ci. léegi ni nga xam ne noonu laa noonu laa ko amee mu naqari ma góor jigéen mi noonu la koy amee mu neex ko doom jam adopté. bi mooy Sénégal. mu ngoog merci beaucoup loolu mooy document baa ngi nii Sénégal 2016 2026 stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres des ministère de la mais baat bi sax dañ koy fawee arrête de faire genre nga xam ne dañ koo bëgg a véhiculer ci ci communication bi euh, muy jàll léegi le genre kenn mënu ko identifier kenn am nañ ministère Sénégal toog nañ ba am ministère bu am genre am fi te laajte wuñ genre ay lan da dégg rek ministre sàngam moo jiite femme famille enfant ak genre ñu la teg ko ci wolof nga ne ministère bi nga xam ne moo jiite jigéen ñeeg ndaw ñeeg euh, lépp lu leen di aar des na benn tur woo tekkiwul ci wolof boobu tur woo lu mu suñu permis ñu dindir ñu ci sex defal ñu ci genre da ngay ñëw sexe lan la homme wala femme wala bees yi ñu génnee ko ci def ci genre lan mooy genre c'est-à-dire góor jigéen bi moom amul tey ba dem na ba ci site internet yi boo njëkk booy ado abonné ci yenn sites yi. Mhm. ñu lay poser question dangay ngay coché tour tur sant date de naissance ñu ne la sexe boo wàccee ñaari ñaar rek moo fa doon nekk homme femme mais léegi boo nañ ci ci jour euh, ci suuf au tour ñu ngi génn léegi ci terme sax genre di jëfandikoo au tour mhm. maanaam leneen li nga doon lu bokk la góor ak jigéen yooyu ñu xamoon ñu defal ñu genre ànd sàmm jikko yi. Euh, ci liggéey bu rëy sëñ Babacar ñu jaajëfalaat ko fu nekk dénoncé nañ ko fa wan ko kilifa yi ne leen tey yow euh, xalifa bi nga baal ma boo amee permis sa permis genre ci nekk lan mooy genre ñu ne la borom ñaari tur dafa mën a am permis léegi ndax moom léegi nekkul homme nekkul femme ndax dañu wax ne sex nit ki góor la wala jigéen la léegi loolu sexe bi nga xam ne moo amoon bu njëkk léegi loolu dafa bëgg dañ nit ki ci xelam dañ koy bàyyi ba mu màgg mu choisir moom soog di xam ndax góor la wala jigéen la mais pas rek mu judd ñu gëmloo ko ne góor la mu gëm ne góor la wala ñu gëmloo ko ne jigéen la mu gëm ne jigéen la mais dañ ko war a bàyyi ba mu màgg mu tànnal boppam ndax moom góor la wala jigéen la ci ngay déggee transgenre ak terme yooyu yëpp nga xam ne moom ngay dégg dégg nañ ne permis yi mujj a génn euh, génn nañ ci genre bi delloo si waat nañ sexe mm-hmm. mais combat bi dafa war a continuer ba suñu carte d'identité suñu turu bàyyi suñu turu yaay ñu delloo ko ci ñu delloo ko ci euh, Oustaz Makhtar Sarr li mu na solo ku ne posel sa bopp question ci lan moo waral carte d'identité yi amul sunu turu ndey ak sunu turu baay. ku ne la poser question boppam. tàmbali nag jëm kanam continuer ndax xam ngeen ne tey télé bii ñu toog lii ñuy waxtaanee nii. est-ce mm-hmm. xam ngeen ne tere nañ leen ko ci Sénégal. Mm-hmm. waxtaanee góor jigéen jopp jox bi mm-hmm. góor jigéen. code de la presse bu bees bi article dix huit. Mhm. nee na lépp lu jëm ci orientation sexuelle. dëgg la dañuy tere technicien média bi journaliste bi ci bind ci image. ngay jox bi baaraam kooku. première fois. Mhm. suñu constitution orientation sexuelle dugg ci. deux mille dix huit dugg na ci président Macky Sall validé na ko deux mille vingt et bi code bi léegi jàll na. tey journaliste bi nit mën na xëy ñu ñëw arrêté benn palaatu lan moo tax ñu arrêté ko mooy dañoo tudd góor jigéen ñi wax ne lu leen naqari ci Sénégal gi ak yeneen ak yeneen tey xale yi programme bu bees bii képp ku yóbbu sa doom ci école bi ren muy jàng mhm. waajalal sa doom dee ko bàyyi xel dee ko si ndax programme bu bees bi war a dem ci école yi mhm. genre nga ci ne xus de te ñu ngi nar jàngal ci école bi programme biy ñëw xale yi nar dugal seen bopp yu grave yoo xam ne mhm. dem na ba xale bi ñu koy orienté ci moom moo war a tànnal boppam ngëm-ngëmam ak fawukaay gis naa ngeen ngeen doon defendre fawukaay yi ñu doon dugal ci jardin d'enfants yi ak. fawukaay yi gën a tuuti mais li génération bi ñu togg muy ñëw ci kanam a gën a garaaw. léegi nag ànd sàmm jikko yi bi mu dajalee loolu yëpp euh, li nga xam ne moom la Nations Unies am ne agenda ñu dajale yëpp ci lañ ne lii daal lenn li koy sottal mooy senegal ba léegi euh, ngóor jigéen terewuñ ko. acte contre nature la ñu tere. sëñ Hamidou acte contre buñ def publique mais sunu constitution terewuñu ngóor jigéen déjà ndaw lu Sénégal yebaloon ñu dem bitim réew doon fa teewal Sénégal ci seen ndaje yooyu wax nañ ko. vidéo yaa ngi fi Sénégal condamné wul homosexualité mais li mu condamné mooy acte contre nature boo xam ne dañ ko def public. loolu dañ ko wax ci turu Sénégal mu ne. déjà sunu président moo dem ci ITL ñu invité ko journaliste bi laaj ko président Macky Sall seen lu jëm ci ngóor jigéen yeeg seen nekkin Sénégal mu ne amuñ benn problème ak gouvernement bi waaw mu ne ko bu leen neexee ñu génn mars défilé mu ne ko bu leen neexee am nañ ci droit mu ne ko duñu am problème ak gouvernement mu ne ko non mu ne ko citoyen yi population bi mu ne ko nag loolu la assuré wul ndax dinañ am problème ak population mais gouvernement bi moom duñu am problème ak moom 2015 la wax loolu itélé euh. ñun ñëpp xëy nañ dégg fi wii non waaw référendum ñu bari jóg wii non man de mm-hmm. wii laay wote ñi ne non laay voté mm-hmm. mais ca biir wii non lañ dugal nouveau droit mm-hmm. point yañ doon def wii wii wii am na ci nouveau droit nouveau droit mooy lan ba léegi sénégalais laaj ci wuñ mooy lan seeni àq ak yelleef yu bees yi àq ak yu bees yooyu mooy dugal nañ ko ci biir constitution bi ak yelleef yu bees yi mais dafa am àq ak yelleef yoo xam ne amuñ ko woon bu njëkk bañ dugal ko ci suñ biir constitution bi ñu dajalee yii yëpp nag ci lañ ni mhm. li koy settal lenn dong la mooy article bi ndax li tax li tax nga xam ne constitution bi waxul ci lu leer mhm. góor jigéen bu ñu jàpp tey suba ñu bokk waaw ana ñu doon takkante 2008 ñu ngi ci dëkk bi di dox nu leen neexee ñenn ñaa nga bitim réew léegi tey dañu ko këli waaw mhm. quinze fii ci bisu gàmm Kaolack gàmm Medina Baye góor jigéen yi nekk fa di takkante dëgg la police bi mu demee jàpp leen mais ministre bi fi nekk te nga xam ne moo yàgg kaasal góor jigéen yi mhm. ngóor soo sa euh, nangam ka mhm. nangam ka ba mhm. mais moo taxaw ne non mënuñoo gis nu ñu leen daane ndax loi bi li mu wax dafa leer acte contre la wax bu ñu def pibliquement te ñii ba ñuy def lañ doon def te dañ ko def ci wéetaay seen salon lañ nekk di def seen mariage góor jigéen kon loolu mënuñ leen cee daan effectivement ministre bi loolu mu waxoon moo dañ leen a bàyyi góor jigéen ñi ñu fi jotoon a jàpp euh, am na góor jigéen bu siiw léegi faatu na te nekkoon journaliste. Mhm. te jàppoon kooku ku tudd sama turu turu <laughs> ñoom ñaar Makhtar Diop histoire bi ñàkkul ñu ko fàtte. Mhm. mais dañ leen a jàpp loxo ci poos lan lañ jotee gannaaw bu ñu àndee ba noppi di xeex mooy dafa waxoon daf koy fay cent mille francs pare fayu ko ko ñoom ñaar ñuy xeex police centrale la ñu àtti àgg yi ñu jàpp leen. moom dañ ko mujj topp ba tëjoon ko moom góor jigéen boobu mais ministre bii ma tudd moo dem Genève am daje buñ fa am ñu ne ko Sénégal dañoo gis ne dañuy bunduxataal góor jigéen mu ne ko Sénégal jàppuñ fa benn góor jigéen mu xëy journaliste yi ne ah xanaa diw sàngam dafa fàtte ne diw sàngam mii di suñ morom mi ngi ci kaso bi te mbirum góor jigéen la ba mu ñibbisee jugee ko ca daje ba defuñ ci une semaine la ñu tijji góor jigéen boobu noonu le ba noppi ñu ne ah mais lu xew kii ñu tëjoon ko liñ ko tëj tëdd ko ñu ne nekkinam bu rafet ci kaso bi lañu ko génnee maa ngi rappelé wu benn député assemblée national biñ naan président bee ko génne mu taxaw maa ngi koy mu ngi mel ne tey ci man ci benn rajo mu ne président laal loxoom laalewu ci ministre bi moom moo jël dogal pour mu génn te layal nañ génn mooy nekkinam bu rafet ci kaso bi lañ génnee góor jigéen boobu nga xam ne ñi ngi dem sax ba tëj leen am na loxo yu nekk ci biti naan nañu leen tijji tey nag dañoo weesu foofu noonu yépp dé bërki démb la le 17 mai. Union européenne léegi dañoo teg menace ñoom première fois ñuy menace yi ne léegi réewu àdduna bi ku nangulul góor jigéen ñi dañuy dal ci sa kaw dañu war a may góor jigéen ñi jàmm dañu leen war a may seen liberté ni ñu leen jëlee di leen boot boddeeg yooyu yëpp dafa war a dañ Union européenne président Amérique bërki démb moo njaay ne góor jigéen ñi bu ñu leen yaataloo réew mu leen di bu na léegi dañuy téye ndimbal doon dimbale mais ñu ne jóg jot na la jiitu loolu la ànd sàmm ji koy jóg réunion ñu waxtaan ñu ne mbir yi li koy sottal nag mooy constitution bi ñu leeral mbir yi ndax article 300 xawma ma 18 bi la xaw ma bi wax ci mbirum acte contre ci leerul te boobu ñu ngi ko doon bëgg a dindi Mamadou Lamine Diallo député assemblée nationale moo yem ci bi ñuy bëgg a def li ñuy tuddee kës néew ne moom la ñu daanee góor jigéen bi ñuy def loi pour criminaliser viol wala yokk daan ci lañu doon bëgg a dindiwaale loi bi wax ak néew ci ngóor jigéen ci suuf ànd sàmm jikko yi dem nañ ba kër Mamadou Lamine Diallo dañ ko filmer ñi ngi yor vidéo yi mu ne moom moo ca yam te keroog sax nangu narutoon a dem assemblée waaye xamul lan moo ko dem loo mu dem nee na document bi ñu leen présenté bi wax ci viol bari na bari goo xam ne mënu ko woon a lire il faut mu dellu waaye yàllaa ko yemle fa mu ubbi ci la yemee ci article bi ñu doon bëgg a supprimer luy wax akas néew ci ngóor jigéen mu mu ñaan kàddu ñu jox ko mu ne ah ndekete yéen li ngeen di layoo pour mbirum viol ndekete yéen di ngeen a bëgg a dépénaliser ngóor jigéen Sénégal ci saa si lañ aj science ba dem gisee ñëw ne boobu dindi nañ ko ci nga xam ne dañoo toog naan noo suñu waa dafa bañ lu jëm ci ngóor jigéen fekk dindi nañ ko ci aj ak jag Mamadou Lamine Diallo moo tax loolu noonu lay kës néew ñu ci am dindiwuñ ko ci mais bi ñu dajalee yooyu yëpp nag ci la ñu réunion ne léegi nag mbir yi li koy sottal mooy ñu criminaliser ngoor jigéen senegal gannaaw ànd sàmm jikkoy seen alliance bi ñu am. forcé leen ko ñu criminaliser leen. waa suñu premier allié ci liggéey bi mooy suñu xalifa généro yi. Mhm. ci lañ engagé wu tourné wax dëgg Babacar Mbuub noppal ñu ci ñun ñëpp. Mhm. waaw noppal ñu ci ndax nag buñ ko bëggoon a. def ñun fu ne laa ko gis buñ ko bëggoon def du sotti. Mhm. moo volonté wu cinq département sénégalais mu wër ko. 45 département yi. mu wër ko. mboolem xalif généraux yi nekk première fois ci histoire Sénégal. lii mi ngi soog di am. mooy xalif général des Mourides signé. ne bëgguma lii. signé waxul wax de. kese signé. xalif général des Tidiane signé. sëriñ Siri sëriñ euh, Muntaxa yàlla na ko yàlla yàggal sëriñ Babacar Si Mansour. Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass. xalifa mm-hmm. bu euh, Laayeen. Canaba. Medina Gunaas. mboolem xulafaawu yooyu dégg Sénégal signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen te ba tey kilifa yaa ngi wéy di signé ñenn daal la ñu déggagul ñu yëngatu mooy politiciens yi. Mhm. ñaara ci signé gum ñaari politiciens keese muy Cheikh Bamba Dièye ak maître ngoone Ndoye ancien ministre. bu Tëngéej bu Tëngéej. Mhm. ñaar ñi képp signé gum ne bëgguñu ngóor jigéen. te am na ñoo xam ne dem ànd sàmm ji koy dem nañ ba seeni kër. giseek ñoom giseek ñoom wax leen lépp jox leen documents yi ñi ngi toog nag di leen déglu. nee naa nag bu mbir yi weesoo ku signéwul ci gaa yi nga il faut muy leer. ñu dénoncé la ci ñële ci ñële nga bokk ci kuréel bee nga bokk. ñoom ngay jàppale. ndax mbir xalif généraux yi kenn ëpp leen responsabilité ak engagement ak am yu bari ñuy sóor am na yu yoo xam ne duñ ci dugg bu leerul ci seen bopp bu demee ba nga xam ne euh, sëriñ Mountakha ak information yi mu am. Mm. ni mu xamee jamono fi mu tollu mën a jël signature am xam lu muy représenté mu jox ko aw nit ñooñu xam nañ ne ñu crédible lañu. xam nañ ne ñu li ñuy def xam nañu ko. sëriñ Babacar Mansour ni mu réservé woo ci yu baree bari. su demee ba mën a jël pli yi moom signé. te tey rek la fa ànd sàmm ji koy mujjaat def na déclaration boo xam ne incha allah danañ ko dégg lu jëm ci journée bi. bu ñu koy teg. sëriñ Ba sëriñ euh, Babacar ñu ngi defaat tournée ci këru kilifa yi. pour yëgal leen journée le 23 bi. léegi ci ngoon la ma sëriñ Babacar di informé ne. biñ demee gis xalifa bi sëriñ euh, euh, Babacar Sy Mansour defaat na déclaration waxaat lu jëm ci 23 bi ngir ñu waajal ko kooku bu signé mais ban politicien mooy amaat benn calcul lu ñuy calculer. boo bokkul fii bokk fii. xanaa xamoo ne imaam dogguma la foofu sax maa ngi gis ñu bari ndeysaan ci YouTube bi ci ngay xam ne nit ñi seenu bëgg lu baax maa ngi nuyu sama benn jigéen bu nekk Louga ku ñu wax su koy na dimee ñoo bokk nekk ci guréel kenn sëriñ bi muy jàmbaar lool mi mi ngi wax léegi ci biir euh, biir commentaire yi di wax ni université sax bourse yu ñu bañ a fay euh, étudiants yi nga xam dañ koy bloqué nit ki bu xiifee xiif bu yàgg ba mun tu dund su yàggee loo ko proposé mu def ko parce que fi ne nii li nga wax léegi programme bi ñuy teg ci télé ci ci ci école yi lu ñuy waajal lay doon duñ koy xëy suba rek ñëw di sensibiliser nit ñi mais dafa fu ñu leen di bloqué ba pare. Mm-hmm. suñ ñëwee buñ la proposé dara nga nangu. Ah muy xëpp ak xëpp. beneen bi ci topp mooy man sëñ Maxtaar dama leen di encouragé ba pare damay mboolem ku nekk ci télévision mbaa nga yor sax ab mu di ko def lillahi taala di sensibiliser di jël seeni élément di ko jàllale parce que mbir la boo xam ne ñun ñëpp ko bokk man damay am naqaru xol soo duggee ci lu mel ni TikTok wala nga dugg lu mel ni YouTube gis góor jigéen buy def live wala mu def vidéo nit ñi naan bàyyi leen ko liggéeyu ndeyama mais sëñ bi réew mi fu mu jëm liggéeyu ndeyama lim am lim am la ko nit ñi ñee man lan la nit ñi lan la ko nit ñi di ñee oto bu rafet. wala yére wala nangam nga gis ñu naan nga gis ku organiser aw xewam invité mhm. am audace su sañse toog ñu naan day ndeysaan nga jug di def say manière mu ci réew mi ak bitim réew. soo ubbee tey boo doon seet Sénégal nga ubbi si ci Sénégal yi nga nekk à l'extérieur day mel ni li fa ëpp nii lañ mel te am na beneen bu gën a garaaw boobu mooy révisé yi tey dangay nekk ci réew bëgg tukki amoo visa. Mhm. mais soo demee ambassade ne man dama nekk homosexuel bëgg koo dund ci sama biir réew mu jafe ma dañ lay may visa nga dem est-ce que xam nga ne bari na ñu nekk Europe ñoo xam ne ni wala Amérique loolu lañu leen maye visa. xam naa journaliste bu nekk fii <laughs> nee na ma tuddoon turam ñu bari dañ ko xam papay euh, kenn ku bëggoon a tukki. Mm-hmm. moo ko proposé un million yu teg pour mu bindal ko benn article rek def ci photo doom ñi ne góor jigéen la bu ñuy bundu xataal Sénégal. article boobu rek la bëgg pour mu nekk preuve pour mu mën a tukki ah, ndax bu amee article boobu rek doom ñi dana ci mën a amee visa pour dëggal li nga wax union européenne bu demee ba ñuy dóor ci taabal ji ci benn côté tamit suñu doomu réew mi ñoom ñoo ko def ñu ci bari ñooy dem déclarer ne ay góor du jigéen lañu waaye nag ndaw ñi attention de góor jigéen bu mag <laughs> moo ma wax bu mag bu ma ko tuddoon ñu ñu ne est-ce maa ngi dégg kooku mhm. moo ne ma mhm. oustaz gën xale yaa ngi yàqu rek mhm. moom góor jigéen bi mhm. ñu koy waxtu jeex na bu yàgg <laughs> ñu bari ñu leen di recruter fi nga xam ne moom mooy ci internet bi mhm. mu ne ma gis ne am na ñoo xam ne boo déclaré ne góor jigéen nga fii bu ñuy fitnaal doo soxla passeport pour tukki doo soxla visa carte ngay jël tuddal na ma dëkk bi ngay dem ci Afrique am na bureau bu ñu fa am fa lañ la defaree sa papier nga dem réew mi nga bëgg a dem mais nag mu ne nga wax xale yi ne leen ku ñëw danga nga sëy si de maanaam am na jëkkër yu góor yu leen di xaar ko ku nangu loolu ñu defal la këyit pour tukki du sedd ci yow gis nga sida bi mi ngi gën a tasaaroo ci àdduna feebar yu bon yi mi ngi gën a tasaaroo ci àdduna te mi ngi bàyyee ko ci ngóor jigéen ji ba tax na loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba tax na kon képp koo xam ne yaa ngi doon wax naan xalifa généraux yi nañ wax na xalifa généraux léegi weesu nañ wax ñi ngi jëf jëf nañ waaw dëgg nag mag ñi nga xam ne dem nañ ba tollu fii ci âge bu demee ba ñoo ñu engagé wu ci benn combat ñun njaboot gi lu ñuy xaar nañu jug taxaw wan union européen wan Joe Biden wan àdduna bépp ne leen sénégalu Cheikh Al Hadji Malick sénégalu Serigne Touba sénégalu Mame Bou Kounta sénégalu Alaaji Omar du ñu nangu ngóor jigéen point ñu bañ cee dellu ginnaaw dinañ ko dimbalee sax suñu nguur yii nii nga xam ne tey ñi ngi leem leebal ba léegi nii waxuñu lu leer dañoo war a wax lu leer de waaw léegi population bi bu ñu génnee dinañu wax lu leer kon la 23 boobu 10 heures ci suba mhm. euh, place de l'obélisque mhm. ñu ngi sàkku sénégalais yi bu kenn des. na mhm. ñëpp ñëw génn. ñu won àdduna bi ne leen bëgg na ngóor jigéen. Mhm. seen financement ca biti le 23 ban bis lay tombé. dimanche dimanche ñu jëm. jii ñu jëm 10 heures 10 heures. 10 heures ba 2 heures incha allahu taala. incha allah bu ci yàlla ande. nun de kenn du lu fa jiitu. incha allah jërëjëf euh, sëñ Makhtar. Euh, sëñ Changit ma bàyyi la nga dolli ci dara rek balaa ñuy tëj jotaay bi. xanaa di wax rek ne Oustaz mhm. Makhtar ni mu ko waxee mooy ne euh, ni ñu yëkkatewaat yàlla bi di ko dóor kilifa yi seen programme EPI moom moo waral loolu mooy évaluation périodique universelle bi nga xam ne defoon nañ ko en 2013 mooy booy jamono bi fii Obama ñëwee ne da ngeen koy dekk da ngeen koy euh, légaliser. Mm-hmm. Macky Sall ne ko dëkk boo dem am na mbatt itam am na culture am. Mm-hmm. bokk ñoo ko yéen. kon ñun paree gunu nous ne pas encore prêts. Mm-hmm. si la jógee SNIC bi def ko en deux mille xam nga lan. seize bi ñuy changé waat lii nga xam ne mooy constitution Sénégal ñoo ci article seize bi pëtëxal fa les nouveaux droits. voilà sëñ Mountakha daf ñu waxoon ne. bu ma xëyoon yëkkati sama kàddu ñu ne ma sénégal yi ñoo ko voté. mu ne jóg leen ngeen def li leen war. su ngeen demee def li leen war ba pare. su ngeen ñëwee fii. su ngeen gëstoo gis ma. su ngeen doxee gis ma seen kanam. nekk seen ndeyjoor nekk seen càmmoñ ne bilaay di ngeen am ndam wax ko ñett yow bilaay di ngeen am ndam di ngeen am ndam bilaay di am ndam kon ndam googu nag ci ñu gën a encouragé tournée bii la bokk wallaay di ngeen ci waxtaanu comme li ma waxtaanu biir néeg la woon sëñ Muntaxa ak ñun waa ànd sàmm jikko mooy wër leen Sénégal gépp am na loo xam ne yéen a mën a yëkkati ñun am na loo xam ne mënu mën a guñ cee wax bu fa yeggee rek waaw moo tax ak fii nga teg mm. leer na nañ mm. sëñ daara bi fee ca Louga mm-hmm. bi affaire bi jaxasowee mais bu génnee ba ne salaamaaleykum maa ngi xool ba firme bu muy mujj lu ñu mujj teg ci suuf kon ñun li ñu war nan ko def suñu doolee fi mu jeexee suñu kàttan fi mu jeexee suñu mën-mën fi mu jeexee suñu sañ-sañ fi mu jeexee ñoom foofu la ñu tàmbalee di wéy ndax yàlla moo dogal lool dëgg la dëgg la kon dañuy sant yàlla jërëjëf sëñ Saïd xam nga Ibrahima bi ñu ko waree sànni ca safara sax mhm. mag ñi nga xam ne dañu màggete woon ba mënuñu jóg mhm. dañu fay xale ya mhm. ne ko demee ngeen utal ñu matt ñu nag dañu bëgg mag ñi nga xam ne mënuñu dem seen doom yi ne ci kër gi yëpp nañ leen utal paas mm-hmm. bu ñu bàyyi kenn mm-hmm. ndax mbon moom mm-hmm. dafa gaaw a sekk nañu góor góor lu ba doon wenn na say ñëw fa huit na nañu fekk ñu départ ñu jóge fu sore ñu dëkk Dakar neuf heures et demi na leen fa fekk mise en place dina fa am vidéo yi nga xam ne doomu aadama yi ci àdduna bi fépp fu nekk. def nañ ko di wax ne ñun Sénégal ñoo bañ lii. te projet de loi. ku koy joxe le président. proposition de loi c'est les député mais ñun bu ñu amee million million de signatures ak lu teg. mun nañ ko yóbbu jox ko député ñu porté ko. mais sénégalais yi ñoo bëgg ñu càmbar lii. te su boobaa nañ ko càmbar. te su boobaa nañ xam. kan moo ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak képp ku ànd ak seytaane. dëgg la yéen ñi nga xam ne rappeurs yi nga xam ne chaque jour da ngeen di wax. yéen woykat yi bët bu set yéen a ngi wax. Mm-hmm. laaj nañ leen vidéo 30 secondes yu ci bëri woo nañ leen directement. Mm-hmm. ba léegi defuñu ko. Mm-hmm. mbir mi dina wër leer de. pënd bi dina wuri imma nga ànd ak lislaam ànd ak ngor. ànd ak baax. baa nga ànd ak seytaane wala nga leen di dooleel. amul beneen. dëgg la jërëjëf euh, say sant it la xadis ba waxoon rek man maa min ummati yaamal amala xawmi luutin naxalallahu ilayhim hatta yaxsuru maahum euh, dañoo war a leeral seeni position parce que bu politique jotee ñëppay leeral seeni position ku nekk wane ki nga àndal ñu dem ci télé yi di tal-tali sonal nit ñi ci sensibiliser leen génn leen vote ji génn leen mars génn leen nangam lii nag marsu dëgg la lan mooy marsu dëgg mooy lu ñu bëgg imposer te dafa am loo xam ne nii ñun ñoo ci war a dawal suñu devoir bopp nga dëkk ci koñ sëñ bi di organiser aw xew woo ay góor jigéen ñu ñëw wër la loolu yaa ngi suuxat ak mbon nit ku nekk ca Amérique mbaa xoolal am na koo xam ne ci internet bi day saaga ndey suy def live démb dama gis ku ko capturé dugal ko ci Facebook bi mi ngi ci trente deux mille et quelques en live ñi koy suivre ñëpp Sénégal gi lañ dëkk sëñ bi fa ñuy dégloo mooy fa ñuy saaga ndey sëñ bi ka ñuy déglu mooy ki nga xam ni kii jikkoom yàqu na ba dafa exile génn ci réew mi dem ñam bën a dëppool culture mu dem da ngay gis sax ñu dañu xas naan Sénégal da ngeen a tardé ci lan lañ tardé ci ay jikko yu baax lañ tardé ne dañuy xas bokkuñu fi ñu jëm ak ñoom naan ñu yéen Sénégal da ngeen a tardé parce que réew mi li àddina dafa def lan la àddina dépassé àddina kay dafa dox jëm ci mbon ndax dañoo jëm ci aaxiru zaman waaye yàlla war a jeexal àddinaam sii moo tax lépp lu jëm ci acte te it gis nga lii Oustaz Makhtar Sarr wax lu am solo la sunu carte d'identité nañu ci dindil nañu ci dugalaatal ndey ak baay. Hmm. noo xam ne diw mii Mansour Gueye mii diwoo ko jur diwoo ko jur ma nga dëkk Lambaye ma nga dat bi la judd waaye dindi ko te dindi gi du farata. kon def gi nañ ko ci defaat CEDEAO ñoo waroon am quarante bi Sénégal rek moo ko nangoo dañ sëñ bi loolu loolu loolu danañ ci def ay jotaay <laughs> euh, sëñ Sidi Ndiaye ca France mi ngi koy wax naan ma li ngeen wax bari na ñu ne fii ñoo xam ne nii seen sëñ Sidi Ndiaye ni ngi koy ziare seen seen séjour sax séjour ñu exilé ñu ñu ñu ñu génn ci seen dëkk ay réfugié lañ ci affaire góor jigéen. Mm-hmm. nga xam ne man li may lu ma leer laa ci mm-hmm. dañuy dem di ñaani visa ngir wane ne dañoo bëgg dugg ak góor jigéen ci réew mi ñu bañ ko. bañ gi ñu koy bañ nag dañ koy def criminaliser ko hmm. nga xam ne ku ko doonati dañ naan kii dañ ko war a tëral rendi hmm. wala dañ ko war a tëj à vie hmm. suñ ko defee lépp lépp ñëpp danañ ko tekki suuf ah waaye buñ leen di dooleel itam bu ku ci génn clip ñu ànd ak moom ku ci def joué ci théâtre sax léegi sketch yi sax mënoo ko def te boole woo ci ñaari tur te loolu tubaab yooyu ñu ko njëkk a def gis nga lii sëñ Maxtaar di wax y'a vingt ans ci ginnaaw seetaan leen euh, euh, série yi daan am mm. ay ñoom Marimar ca ginnaaw ca ginnaaw ak ginnaaw am na yu ko gën a yu ko gën a gàdd ay mm. ñoom Dalas mm. da ngay xool di ci gis ay góor jigéen yu mag yoo xam ne yàgg nañoo préparer nit ñi psychologiquement ci na leen ci lii la war a dox jëm ci ca yooyu yëpp nag buñ buñ tee ba egsi dañuy léegi nag dañuy nekk loo xam ñuy jëfee ndox jëm ci la kon noo ngi leen di encourager noo leen di ñaanal yàlla sàmm mooy population bi seen doole mooy jullit yi. Hmm. seen doole mooy même ba ci jàngu bi parce que ñoom ay qualité ak jikko damay wax ne balaa ngay bokk ci benn diine dafa am jikko ju yàlla mooy être humain. Hmm. doomu aadama bi yenn jikko yi qualité yu baax moo war a ne ci moom ba pare. Hmm. yooyu nag ñun ñëpp dañ ko war a ànd moo te gis nga dimance bii nu jëm 10 heures. man de maa ngi ñaan mboolem koo xam ne ni xam nañ mbaa ñu séq ko lële. nga sol sa dàll ñëw nu bokk naqarlu loolu. Ah, bokk signé parce que fi nekk yëlifu nu nun noo leen que ñun ñoo fi teg nag. kon ñun ci li ñu bëgg la ñuy def lan lañ bëgg mooy suñu civilisation nan nu ko gardeel mhm. nan fexe ba tey jii bu Cheikh Sida ji Malick jugoon mhm. sëñ Touba jug dina ana li ma leen bàyyi loon mhm. tey lii Cheikh Mouhamadoul Mountakha def ab sac la de signé jël sa kase ba pare di jël sa alal di wax ni fu ngeen ci tool rek naa ko yëg te it loolu nag moo baax te loolu nag gis nga lii imaam di wax sax naan buñ demee ba am un million signature nañ ko yóbbu assemblée déedéet nan fexe sax assemblée ba suñu député yi gars yi diine yi yore ko su ko defee nun la ñuy wate ñu di ko wateel suñu bopp loolu fi ne dañ caa war a dox jëm fexe ba suñu assemblée bi nun ñu dëkk ci parce que tey fi tey mënu leen a jël acte bu toll nii ñu ne Sénégal ñor na leen ñaari politiciens képp ci signé fésal ko kon lan la ñuy def assemblée ñoom lan lan nu fay defal suñ millions yi ñu leen di fay suñ gasoil bi ñu utiliser pour lan la mm. nañ fexe ba nangu ko jox ko ñii nga xam ne ni tey diine lañ fay nekkal mm. même bu fekkee bokkuñ sax ci l'islam tey défendre diine sax tey défendre jikko yu baax yi sax nañ leen nañ leen fa nekkal mm. kon nag noo ngi jéggalu baax mbokk yi eh, di siyaare sëñ imaam doom Imam doomi bu sa imaam la xaadi nee na mi ngi rafetlu jotaay bu baax yónnee na ma sax ay abyaat ak ay hadis yoo xam ne jëm na ci lii ngeen di waxtaane waaye loolu lépp imaam yéen seen taxawaay la dañ ko war a bind di ko articuler di ko jox nit ñi di ko liir ba nit ñi xam ne lii ñuy nekk dekkul lu gën sëñ eh, Mbacke Soxna tamit ñu ngi koy nuyu suñu wëllëre la ndeysaan ngi bind message ne mi ngi déglu ndeysaan dé mu ngi koy kéemaan la waaw waaw nga baal ma rek mm-hmm. euh, ñi nga xam ne ñoo bëgg tamit jàpp ci liggéey bokk ci waaw mm-hmm. ndax journée la 23 bi lu mu néew néew trent millions mm-hmm. nañ ko soxla pour organisation bi te fi mu toll nii mën naa ne ñaari millions euh, ñu ko ba tax na ñaari numéro yi ñuy bëgg a joxe. Mhm. Euh, kenn ki numéro Adama Mbuub la. bisimilah kenn ki numéro Babacar Mbuub la. Mhm. Euh, lu waay di yónnee ci ñoom la jëm. Mhm. Euh, ci finance la jëm. ndax kuréel yi dafa wala liggéey bi dafa séddale ko. ñu nekk ak fa nu nekk. seen numéro mooy 77. 643 00 57. 77 643 00 57. beneen numéro bi mooy 77 657 10 52. 77. 657 10 52 Euh, wolof nay wax ne ku mënta yéeg. Mhm. war a mën a bës ku daanu. war a mën a bës ku daanu. waaw loolu maa ngi ciy interpellé euh, tamit. wallaay nga war mën a def lenn li rek. wallaay. Euh, eh, sàkku ci régie bu ñu mënee daggal séquence bi. waaw après ñu koy mun a partager. incha allah incha allah sax damay bëgg sax xam naa waa groupe kenn sëñ bi ñu ngi topp jotaay bi. ñoom Soxna Ndiaye si bi. Mhm. sëñ Moustapha Touré kenn Soxna Ndiaye si ma ngi ca Belgique Belgique ndeysaan. Mhm. soxna Soukayna Dibe ñu ngi koy gërëm sëñ ma Mamadou maa ngi joxe ak soxna Mame Bello ñoom soxna Bintu Jaxate ñu ñoom it def ci dara daara ngeen jàpp ci tubaarkàlla ci liggéey boobu ndax ñun ñëpp lañ koy defal eh, soxna Ndeye Awa eh, Diop ñu ngi ko fi ziare moom it mi ngi ci YouTube bi ndeysaan di yónnee ay message yu am solo waaye teew ci eh, di gërëm ñi àndaloon ci bi di gërëm ñi bokkaloon imam Makhtar Sarr dañu am mbégte lool tubaarkàlla ci bokk ak moom jataay bi ak Serigne ñu jàkkaar looloon jekk baylat di sëñ daam ca régie ba moom it di ko ñaanal baax di leen baalu àq nag moog sëñ Abdou Diouf la ci liggéey beeg taxawaay beeg ni muy demee ak sëñ Pape Cheikh Bey waaye di gërëmaat sëñ Jibril Ndaw di ko ñaanal yàlla moom tamit euh, yàlla taxawu ko waaye alaaj mbàkk yu fay ñaanal ko parce que chaîne bu mel nii nga jël ko nii sëñ Maxtaar la des na tuuti mhm. ku nekk ci presse dootoo ci waxati parce que yi ñu lay tegal ci ginnaaw xupp xëpp waaye ñun yàlla dogal nañu mhm. nekkuñ ci loolu parce ñu koy gërëm di ko ñaanal baax yàlla sàmm ko di gërëm sëñ eh, Cheikh Balla Samb ñu teg ci télévision bi moom it di ko ñaanal yàlla wér ak jàmm sëñ Mamor Mbaye maa ngi lay ziare gis naa message am léegi nee moo fay jiitu noonu ngay def nag laa bëgg nga def encadré jiitu ko sëñ Moustapha Kane topp ci ginnaawam ngeen ñu bokk li nga xam mooy taxawaay bi di la ñaanal guddi jàmm laylan mahal baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu si sëñ قد زلزل